asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñuy seetaan ci télévision seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balwaaq di ñaan sunu borom mu boole ñu jëggal di nuyu sunu kilifa gi xaaj bugaan yàlla may ko jàmm fu mu tollu aar ko ti suturaal ko di nuyu ndoy baraham suñu sëriñ ak saalix bu daara ji ak abdullahi sunu xarit euh, dinuy ñuy tey rek mooy jëm ci wàllu tëj télé bi ak ñàkk tëj pour man bu waxtaan amee lu mënul am manta am bu waxtaan amee lu ne mën na am te gis nga àdduna boo dee doxal nu la neex yow mi nga xam ne yaa nekk ci ndombo tànk bi di doxal tey li la neex danga war a seet ne day jeex seetal ne day jeex su jeexee nag la fay des looloo mat a xalaat muy ëllëg moo tax olof ni ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd euh, ci ci gis-gis ak wax ak xalaat mooy lu nuy waxtaanee la luy jeex la léegi ñu ne amoon na fi ñu ne daan na am bam amee fu mu mujj fii loo gis day jeex donc gannaaw nag day jeex dañoo wara góor góorlu gis nga Sénégal léeg-léeg nga gis fi mbir mu doxee noo xam ne warta doxee noonu parce que dañuy dañuy fayonte dañuy faj mer dañuy dañ dañuy jaay doole ak alors yooyu nekkul yëf yu dox li am solo mooy ku ñu tooñ mënta ñàkk ku tooñ mënta ñàkk ki tooñ na nangu ne moo tooñ loolu mooy dëgg ki ñu tooñ mu nangu ne dañ koo tooñ léegi nag am na waxtaan tey gis nga ñi ñi lànk ne duñu wax su pourtant su yowmal qiyaamee kenn ku ne yaa problème yoo xam ne bëgg nga ñu baal la ko kenn ku ne yaa ngi problème yoo xam ne bëgg nga yàlla suturaal la si ñaar yooyu nag soo amul xel séddoo xel séddoo xalaat doo am ndam manul nekk kon li am solo mooy nañ ko waxtaanee dafa am émission bu buggaan tëral ci tele bi mooy waxtaanee ko gis nga eh, lu mu mën a doon ci àdduna suñ ko waxtaanee rek mu rafet lu mën a doon ci àdduna dañ koy waxtaanee mu rafet suñ ko waxtaanewul dafa ñaaw ti lu ñaaw amul njëriñ lu rafet rek la yàlla soxla fa ahsinu fa inna laa yuhibbul muhsinin yàlla nee na leen rafetal man dama bëgg koy rafetal kon yàlla ndem daa bëgg koy rafetal yow nga bokk ci jaamam yi war ngaa góorgóorlu rafetal kon mbir mii nañ ko teg ci yoon bañ a xët-xët bañ a mer bañ a fajee doole bañ a fa fajee euh, nu mu tudd euh, kenn xamul laal bu ko fajee bul fajee doole parce que doole du faj xel mooy faj soo indee sa xel nag teg ko keneen indi xelam teg ko ngeen waxtaane ko ngeen juboo kon donc loolu lañu bëgg ñaan mboolem autorité yi nga xam ne laal nañ ci mbir mi ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko sas nañu déggoo waxtaan day jeex looy jeex nag dañ koy moytu euh, euh, boo xëccoo day jeex soo xëccoowul day jeex kon gannaaw de jeex nag nañ ko rafetal nañu fexe ba euh, euh, góor gi góor gi mais luy wa luy wàllam na def yëfu góor rek jigéen ji luy wàllam na def yëfu jigéen rek donc yëfu góor mooy waxtaanee nañ ko waxtaanee suñ ko waxtaanee nag ba dëppoo ci lenn ba juboo ci lenn ñoo jël loola wéel ko kon ñu ngi ñaan suñu digganteeg ñoom suñu digganteeg bugaan moom du yë du yàqu déedéet te télé bii mënta nekk gaa coow dana bari nag wax dana bari waaye tëj du am tëj du am mukk mukk mukk parce que itam li lii bugaan ak lii tele bi du benn bugaan c'est à part télé bi c'est à mais buñ boole yu bokkul télé bi tey ñi fiy liggéey bu weer dee dañ leen di fay ñu yóbbu seen njaboot mais Bougane bokk ci télé bi beneen affaire la boo xam ne dañ koo war a toppatoo Bougane beneen affaire la Bougane su amee ñoom problème nañ koo baal dañ ko baal parce que adduna waxtaan rek rek rek moo koy réglé coow mënu ci dara xuloo mënu ci dara ci luy jeex nañ ko rafetal moo gën mais suñ foo buñ buñ toppee lu ñaaw du baax moo tax nag nañu bàyyi xel ne wàllu rajo bi wàllu télé bi kooku c'est à part fële la beru ab mbiru bugaan fële la beru nañu bàyyi télé bi tout tranquille mu dox la ñuy régler bugaan ñu régler ko bugaan su fekkee ne bugaan dafa tooñ nañ ko baal su fekkee ne ñoom ñoo tooñ nañu nangu ne ñoo tooñ c'est ça loolu mooy problème ki tooñ na nangu ne moo tooñ ki ñu tooñ nangu ne moom dañ koo tooñ kiy jéggale jéggale ku baalewul nag ku baalewul ne la wóor ne yaa ngi séq yàlla bor boo xam ne war na la ko baal te su la ko baalul du sotti kon nag li am solo mooy waxtaanee ko mu nekk benn ñu juboo dëppoo moo gën yenn yi yenn yi rafetul te rajo bii télé bii bu leen xalaat kenn tëj ko kenn du ko tëj c'est impossible nit yëkkati caabi tëj télé bi télé bi ñi doon liggéey taxawaalu ku ko def du la jik ko def du la jik manu laa jik kon nag nañu nañu waxtaan rek bu ñu waxtaanee trouver terrain d'entente jeex na xam ne lii moo mën a nekk mën naa nekk def nañ ko jeex na mais ku ku tëj télé bii tëj nga si àdduna ku tëj télé bii nga xam ne ñu bëri ci la aj seen wërsëg aj seen yaakaar aj seen lépp nga wëlbati ko tey tëj télé boobule ne la wóor ne tëj nga say affaire kon nañu bàyyi tele bi mu dox nañu bàyyi ñii liggéey liggéey nañu bàyyi ñi ñiy fay fay mu jeex bu ko defee li des nag diggante moo Bougane ñu réglé ko léegi la amul amul problème man daal noonu laa ko gisee te itam euh, noonu mooy mën a nekk li ci des amul solo ay xuloo yu sew ak wax yu sew ak la nga waxee lu lu ñaaw daal nga wax lu rafet waaw li nga waxee lu ñaaw nga wax lu rafet wax daal ba ca gën mooy ba rafet wax ba ca yées mooy ba ñaaw fexeel rek yow sa wax na rafet parce que li tax ngay coow day jeex day jeex ginnaaw day jeex nag fexeel mu yóbbaalul rafet c'est ça problème ko defee ñun loolu rek lañ ci doon euh, addu di ko ci ñaan ci mbir mi bu dee sénéra mu dawal yërmande su fekkee du sénéra gouvernement la mu dawal yërmande su fekkee du gouvernement ñeneen la nañu dawal yërmande su nekkee lu ne ci biir la nañu ko dindi leeral ko moo gën waaw moo ko gën sutura daal baax na sutura daal moom euh, loo mën a gis ci àdduna suturaa ko gën kon nag dañuy suturalante euh, xale yi liggéey jigéen ñi liggéey góor ñi liggéey mag ñi liggéey ñu weer dee ñu fay leen seen xaalis mais xoolal bala na fay ñu leen nga tëj ay compte fermer compte yi tëj tëj tëj léegi ñii weer dee lu ñuy fayal lan lañuy ñuy dundalee seen njaboot lan la yoree seen kër donc yow yaa ngi defee ne def nga ngóor a fekk defuloo ngóor a nañu dellu gannaaw seet mbir mi ñu waxtaanee ko mu jeex mais tëj du solution tëj du solution nekkul luy defar nekkul luy yokk day wàññi ko defee loolu ah ñu bàyyi ko xel baax na ci waaye nag tëba tëba tëb rek dañuy tëj tele bi wéy wéy télé bi nangam dañu dañu doy waar dañ mais doyuñ waar ku def lu ñu wax dañ koy wax ku def lu ñu waxul duñ ko wax ku bañ ñu wax la nag bul def waaw ah, def rek moo fi soo defee ñu wax soo deful ñu wax kon nag rajo bi ak télé bi li tax ñu indi ko fi mooy wax wax nag bu jotee ñu wax su wax jotul du ñu wax kon donc loolu rek la ñu bàyyi ko xel sàmmonteeg euh, àqu doom aadama sàmmonteeg seen ñaq dafa bàyyi dafa baax sàmmonteeg ñaqu nit ki sàmmonteeg ñakku nit ki su weer deewee mu fayeeku la mu fayeeku mu daw dem ci njabootam ñu dundee ko da dawaat ba weer deewaat ñu fayeeku nga xëy tëj loola tëj moom du mën a nekk xëy na ay mer dana ne coow dana am lu ne dana dugg mais tëj du am tëj du am mukk incha allahu duñ ko tëj incha duñ ko tëj que fu ñu war a mën a teg tëj amul te itam lu leen naqari ci télé waxtaan leen comme ñoom waxtaan leen ak ñoom li leen naqari yéen toog leen ak ñoom ngeen waxtaan nangam ak nangam ak nangam moo ñu naqari ñu mën ko bàyyi bàyyi ko c'est ça mais doo jël nit ki rek condamné ko ci doo ko wax dara <laughs> xel nangu ko mais yow nit ki mu ngiy wax xëy na li muy wax neexu la mais woo ko ne ko li ngay wax neexu ma ni nga koy waxee bëggewu ko waxee ko nii ak nii ak nii mais doo tëb rek eh, eh, ti nag gis nga dañoo yàpp na lu yëngutu ñu tëj dañoo yàpp de lu yëngutu ñu tëj Babacar Diagne tëjoon na ko tëjoon na fi deux fois deux fois te loolu tegewul ci yoon parce que lu am ñu teg ko ci télé bi su amuloon moo gënoon mais am na ñu teg ko ci télé bi nit ñi seetaan ko ñu ne wuy parce que seen TV ñu heurté nit ñi ba tax nit ñi di déconné mais loolu du solution tax nga tëj euh, euh, seenu jàmbur beneen yoon yi tëj nañu ko ñaari yoon yu ma yu ma xam yoo xam ne Babacar Diagne yeble na ñu tëj ko li lan la Babacar dafa dem yeneen euh, kilifa yi dañoo dem président dafa dem vice président dafay dem député dafay dem ku nekk da nga fay da fiy jóge da ngeen di seet wecc wecc wecc wecc ni ni ni meew ni weñ di seetee cim soow kon donc ay tëj fii ak nañ bàyyi fii ak nañ tëj fii xam leen ne da ngeen di jeexal ngeen demee xel demee xalaat deme xel mu rafet mooy tax mu avancé su su xel amul àdduna di tukki Babacar daal li ma koy ñaan mooy na demee xel Babacar Diagne même lii du problème bu dee problème am baax na bu dul problème am na demee xel rek parce que tëj na fi ñaari yoon rajo bi yu ma takk naa demee xel te it kuy kuy débrouiller yemule ko man boppam rajo bi dañuy débrouiller koo xam ne say publicité say annonce say yu sew sewaan ci ngay góor-góorlu ak say say yenn euh, jubbante yeeg jubali ci ngay góor-góorlu loo am pour mën a fay say nit mais kooku yemule public mënuñu yem ak RTS yéen il faut ngeen jéggal télé yi ci lii nu nekk il faut ngeen baal leen mais jàpp fii ku ne wax fee ne wax fee ba mu yàgg nga tëj ba mu yàgg nga tijjiwaat tëjaat tijjiwaat tëj pour lan Babacar bu fekkee ci yow la bul tëj bu fekkee du ci yow ñi mu doon bu ñu tëj tiit rajo bi ku ko tëj tëj tele bi na nga na la wóor ne doo dem ñu dem rési bati ñëw

ko defee nag eh, gàmmu gaa ngi bëgg a ñëw gàmmu gi nag dafa am nu mu tëddee man ni naa leen waxuma ci turu kenn duma waxit ci turu kenn yonent bi ci laa bokk war naa wax jëmi ci yonent bi tugg yonent bi ci laa bokk war naa wax jëmi ci yonent bi toogu gàmmu it yomb na yomb na su jotee bés bi nga xam ne ci la gane àdduna moom yonent bi su ñëwee kenn ku ne mën nga koo def mbooloo kenn ñoo yem kenn ku ne mën nga koo def duñu wax Ablaay Ba ak diw ak diw du ñu wax Iran ak diw ak diw du wax Ndoye ak diw ak diw non saaliha mën na gàmmu néegam jàng alquran zikar euh, julli ci yonent bi ñaanal yonent bi ba fajar jot ak say naafile léegi ku ne mën na ko kon bésu gane àdduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bés baa ngi ci yoon bi di ñëw li nga xam ne moo ci war mooy kenn ku ne def ko ni ko bëggee Maodo nag foofu dafa waxoon foofu benn affaire dafa waxoon ne maa ngi leen di yëgal lenn képp koo xam ne sa màggal yonent bi rax na leneen lu dul màggal yonent bi bàyyi ko allah azimu laylal wilaadati ida lam yakun naxwa alxaraami udulu su la wóoree dañ ciy def lu bon su la wóoree ne ña ciy ñëw dañuy def lu bon nañ ko arrêté tu mu ca tàng-tàng ba mu jeex su la wóoree nag ne lu baax ngay def ñi ànd ak yow lu baax la ñuy def nañu def liñ ko bëggee jeex na kon yonent bi sallallahu alayhi wa góor la goo xam ne du ko ñuy foye gis nga euh, guddi yonent bi li tax duma jëm fene duma jëm ci suñu boor parce que ñoo xam nañuy gàmmoo seen gàmmoo seen affaire la xam nañ seen ni ñu tëralee kooku mën nga ci maandu ñeneen ñi bëgg a gàmmoo nag mën nga leen waxal c'est ça parce que euh, dugg ci tarixa jàmbur dugg ci yoonu jàmbur dugg ci ndigalu jàmbur daf lay indil ay coow kon bàyyi leen ak seen mbir fële bàyyi ak seen doxalin fële bàyyileen leen ak seen gis-gis fële yow nga jël gis-gisu lislaam indi c'est ça yonent bi daal su jotee bés bi mu gane àdduna ñëw na nañu màggal bis boobule nañu jox cër bis boobule kër yi koy def ci réew mi ñu jàppale leen ci la ñuy def ña ko deful ñu bàyyi leen tout ko lu affaire affaire bi noonu rek la tëddee amul leneen lu ñu ci wax leneen lu ñu ci wax amul guddi gi yonent bi daal sallallahu guddi la goo xam ne dañ koy màggal guddi la goo xam ne dañ koy jox cër guddi la goo xam ne kenn du ko taxawal euh, taxawaalul bàyyi ko noonu guddi la gu ñuy matalal léppam kon nag leylul arubati xalla durru fi rajabin sumal munaadi yunaadi musmail fahimi waaw guddi googu ci la yonent bi gane àdduna ci lañ jébbal yaayam baayam amina baayam ci lañ ko jox aminatu ci guddi aljuma mu jébbalu ko ci la xëy mu ëmb ci bisu altine ci la gane àdduna waaye bi mu nekkee ci biiru yaayam sallallahu alayhi wa sallam min baadi ma qad xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayidal umami lañ ko wax ne ko yow yaa ëmb ki gën ci nit ñi yaa ëmb sangu mbindéefi kon nag isa wadaatihi fa sammihi muhammadan ah uktumil amra nag ay yëkkit maa fa tex mi soo ko juree na nga ko nëbb xoolal ko juddugul ami noon nga juddu ami noon boo ami boo nekkee kilifa day rawati seetal loolu ki juddu bees tàkk am noon juddoogul am noon su juddoo ba sax sikkimam ci la noonam di gën a fës waaye dara li noon yi bëggoon ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam defoon nañ ko ci moom def nañu lépp ci yonent bi waaye taxul mu sotti yàlla def na suul na leen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 cours sur la factorisation d'un polynôme que nous allons scinder en trois parties. D'abord, la racine d'un polynôme, le théorème, et enfin, comment Je sais que le temps est Espérons qu'on n'est pas en train de le perdre. D'ailleurs, même le proviseur m'a informé que la marine nationale s'est saisie du dossier. Tiens. xanaa yëg leen ni Moussa dafa jël gaal mais répondez-moi. monsieur ñoo ko yëgandoo sax gaa daan nañu ay rumeur nag mais daan ko wër gëm. moom dafa yàkkamti sax mënoon na bàyyi ba mu bag si ne gën a yomb en tout cas bett nañu trop. si vraiment. pourquoi jël gaal gi ah pourquoi jël gaal gi vraiment c'est triste. il ne devait pas il ne devait pas. bonjour classe. oui bonjour. bonjour, bonjour monsieur Ndiaye. oui ça va comment vous allez. ça va bien ça va bien merci beaucoup. alors si vous voulez est-ce que tu as des salades. oui allez-y allez-y. alors comme vous le savez l'école c'est pas la rue fii. du mbedd ba ku jóg rek ne fii mbedd buur la lu ma neexul def école bi école de prestige la mm-hmm. ay résultat rek la ñu xam chaque fois pour pourcentage bu baax la ñuy am ci loolu nag dafa am ay affaire yoo xam ne dafa commencé xew ci école bi te duñ ko nangu muy tox beeg naan bi li ci gën a doy waar nag mooy dafa am benn élève boo xam ni dafa utiliser arme blanche ci kaw surveillant général bi loolu moom dafa jéggi dayoo dafa doon loo xam ni école bi waxuma ne da koy nangu mais du ko tolérer sur ce donc euh, Salif mm-hmm. pour avoir menacé ton surveillant avec un couteau à la gorge le conseil de discipline a pris une décision à l'unanimité mm-hmm. comme quoi tu es renvoyé définitivement de l'école léegi li ma bëggoon mooy nga jël say bagage te nga génn classe te bu ma la ko waxaat ñaari yoon. kan laa doon. ah bon. boole ma daaxee. sur wàllu nekk rek di boole daaxaale ko ci biti. moom misaal sama papa. fan may wax yow nga nekk simple surveillance école eh. di jàppale sa morom sur collègue. yow yaa réew. comment simple surveillance c'est comme ça que tu nous parles hein simple surveillance tu te permets. yow yaa réew. alors Sali man duma sa morom man je suis ton éducateur si tu patauges au bout de l'impolitesse c'est pas avec moi que tu vas la laver xam nga laa bëgg nga jël say bagages te nga génn école bi. dew mënoo leen si man dara bag kenn mënu ma ko am tere simple surveillant d'accord mais il faut se faire plaisir mënu leen maa traité sama bag silence il faut être correct mais lan la ñun duñu seeni ennemi nee nañu indi say parents indi say parents boo bëggee def recours nga bind lettre jox ko proviseur mais lan la jëlal say bagage nga dem régler loolu eh wax dëgg maa ngi génn léegi ne ci boo passé boutique. ban nga nekkee. non ci jàpp koñ bi à droite. ah ma chérie. bonjour. tu vas bien. ça va je vais bien. ndax dugguloo woon ci biir. suñuy papa mun na moom ni mu mel. maa fi nee naa la nga génne loolu sa sa maam bañ la kenn du bari ginaar ba pare bañ ay cuujam. sama yow la gën gis comme set li yëpp sa yaay la moom rek moo la visé seebu sa maam elle t'adore. waaw loolu c'est vrai mais loolu indi ma fi ba xam nga teel sama anniversaire. Ah, bien sûr. mais sa anniversaire nekk tey tey dama koy doogee wax. mais loolu moo tax ma ñëw wax si la ko. foo bëgg ñu fete ko. bëgg naa ko ensemble man yow loolu nga a nekk mais man maa mënul ànd déglu rek ma expliqué la xam nga sa yaay moi bi may wax ak yow bëgguma gis man xaw ma lan la dafa mel dañu dëddale te en plus man ak moom bokkuñu ay conviction bëgg moom mu jël la def la arme sama diggante man ak moom bàyyi noonu rek. non non non du ma sa am loolu man dinaa ko gérer sama bopp. parce que doo bàyyi ñu génn ma wutal la glace yi la gâteau pour ça ñu bàyyi loolu quoi. yow accepté la papa accepté la s'il te plaît s'il te plaît fais cinq mois wala ma yàlla béy. je le sais. d' accord ça marche. merci. beneen yoon rek incha allah. d' accord c' est bon. Oui, bonjour. Génial. Uh mhm. -huh. Le proviseur. Il est dans son bureau. Ok. ne même pas dans son bureau il m'appelle. sedd la moo tax góor yi changé na ah li mu sedd la je crois. ça va looy def fii. bon yow nag laa soxloon en toute confidentialité. ah bon. Ah, xam nga rek man samay mbir nag ma xamee woon bu ma jàppee moom du ma bàyyi ba jusqu'à sens du preuve contraire. ah si la moo xewati. déglu ma rek. xam nga lu ne fànn kenn du moom xeex boobu ba léeg maa ngi ci mais kenn fekk si wu ma ci. ñoom bàyyi tey nag yàlla ñëw bàyyi. loolu mooy wax parce que dama jàppoon ne que su ma waxee après man maay am gàcce dootuma jar dara si dëkk bi mu dem di ko def di ko def di ko def ba à la fin affaire dem ba ëppuma doole amatuma si woon dara. léegi moo defoo ko. nee na parce que dëkk jékki-jékki commencé mu indil ay chantage te ne su ma tëjee am gis nga lii. Jo. give up de booy amul découragé ama jëlal say parents nga yóbbu leen ci proviseur ñun xam nañu surveillant bi moo la tooñ parce que lépp fii lañu fekk mais instant bii nii bindal recours jël say parents yóbbu leen a baalu continuer say cours ñëw def sa examen parce que l'école a bose de toi dégg nga ma est-ce que what lépp yaa ma ko yóbbee. booy ma ngi saa. booy sa problème yu sew sewaan yu moo raam raam tey ba si man nga taxaw fi naan booy lii du dara. bon oh, ok. booy. ngeen arrêté di protéger monsieur Ndiaye. mais man li ma jaaxal yow lii ñëwoon nga wax ma ko sam bureau moom aussi il est venu wax ma ay wax yoo xam ni man je croyais que ni affaire bi eggul fii. mais grand yow xool nga ma ça fait combien ma nekk ci établissement bi mës nga ma xam ci lu ñàkk fay la ne Ndiaye c'est mon collègue tey bu jàpp di am moom laa waroon jàppale mais bu ma gisee loo xamante ne lii raam jëm ca ñàkk bu du ko seetaan. en tout cas moom benn affaire am na ce qui est valable pour les c'est valable aussi pour les professeurs. ah en tout cas. lii moom dinaa dem waxtaan ak doyen parce que si c'est des preuves à l'appui. ah monsieur Thion monsieur Sylla. waaw. oui monsieur Ndiaye. monsieur Ndiaye. maa ngi doon wax dama lay woo téléphone sax. ah mbaa jàmm qu'est-ce qui se passe. maa ngi fàttali sama biir mooy métti. waaye sànq li may def la navette entre les toilettes et la classe. mais Ndiaye il faut que nga arrêté affaire u lekku mbedd yi. foo romb taxaw jënd loo lekk. mais loolu du pour yow quoi. tu es un éducateur kon affaire lekku mbedd yi da nga ko war a moytu. loolu xam lu moom allégé wala daal. mais léegi yéegal rek une heure de temps de sa classe bi yéegali bi xam naa damay ñëw dem à la maison. d' accord c' est bien. ok c' est bien bonne guérison. merci c' est gentil. allez bonne guérison merci MST sax. xam dara du ko romb. silence c' est ton collègue bàyyil sa yi ngay def non non non yàlla baax na. kon yoon daal. chaque jour ngeen utal ko alibi mais non non cette fois ci moom man je te promets que ne bii dinañ ci def sax conseil ah en tout cas di dàq ak yooyu yëpp mais am na yoo bu ñu ko defee. li ñu war a njëkk a dàq mooy moom. waaw léegi loolu yëpp dinañ ci jóg dara léegi dama nga eggalil balaa élèves di kii ak yooyu dégg nga. waaw ah, man maa ngi nii dama am rendez-vous ministère. d' accord comme ça quand je reviens après nañu kii. turu kenn du waxit ci turu kenn yonent bi ci laa bokk war naa wax jëmi ci yonent bi tugg yonent bokk war naa wax jëmi ci yonent bi tugg gàmmu it yomb na yomb na su jotee bés bi nga xam ne ci la gane àdduna moom yonent bi su ñëwee kenn ku ne mën nga koo def mbooloo kenn nag ñoo yem kenn ku ne mën nga koo def duñu wax Ablaye Ba ak diw ak diw duñu wax Iran ak diw ak diw duñu wax Ndoye ak diw ak diw no saaliha mën na gàmmu néegam jàng alquran zikar Eh, julli ci yonent bi ñaanal yonent bi ba fajar jot ak say naafile lii ku ne mën na ko kon bésu gane àdduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bés baa ngi ci yoon bi di ñëw li nga xam ne moo ci war mooy kenn ku ne def ko ni ñu ko bëggee Maodo nag foofu dafa waxoon foofu benn affaire dafa waxoon ne maa ngi leen di yëgal leen lenn képp koo xam ne sa màggal yonent bi rax na leneen lu dul màggal yonent bi bàyyi ko ala azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu su la wóoree ne danga ciy def lu bon su la wóoree ne ña ciy ñëw dañuy def lu bon nañ ko arrêté mu ca tàng-tàng ba mu jeex su la wóoree nag ne lu baax ngay def ñi ànd ak yow lu baax la def nañu def liñ ko bëggee jeex na kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor la goo xam ne du ko ñuy foye gis nga euh, guddi yonent bi li tax duma jëm fene duma jëm ci suñu boor parce que ñoo xam nañuy ñuy gàmmoo seen gàmmoo seen affaire la xam nañ seen ni ñu tëralee kooku mën nga ci maandu ñeneen ñi bëgg a gàmmu nag mën nga leen waxal c'est ça parce que euh, dugg ci tarixa jàmbur dugg ci yoonu jàmbur dugg ci ndigalu jàmbur daf lay indil ay coow kon bàyyi ak seen mbir fële bàyyi ak seen doxalin fële bàyyileen leen ak seen gis-gis fële yow nga jël gis-gisu lislaam indi c'est ça yonent bi daal su jotee bés bi mu gane àdduna ñëw na nañu màggal bés boobule nañu jox cër bés boobule kër yi koy def ci réew mi ñu jàppale leen ci la def ña ko deful ñu bàyyi leen donc lu affaire affaire bi noonu rek la tëddee amul leneen lu ñu ci wax leneen lu ñu ci wax amul guddig yonent bi daal sallallahu guddi la goo xam ne dañ koy màggal guddi goo xam ne dañ koy jox cër guddi la goo xam ne kenn du ko taxawal euh, taxawaalul euh, bàyyi ko noonu gu ñuy matalal léppam kon nag laylul arobati xalla durru fi rajabi sumal munaadi yunaadi musmail fayimi waaw guddi googu ci la yonent bi gane àdduna ci lañ jébbal yaayam baayam amina baayam ci lañ ko jox aminatu ci guddi àjjuma mu jébbalu ko ci la xëy mu ëmb ci altine ci la àdduna waaye bi mu nekkee ci biiru yaayam sallallahu alayhi wa min baadi ma qad xala waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayidal umami lañ ko wax ne ko yow yaa ëmb ki gën ci nit ñi yaa ëmb sangu mbindéefi kon nag isa wadaatihi fa sammihi muhammadan ah uktumil amra nag ay yëkkit maanin fa textani mi soo ko juree na nga ko nëbb xoolal ko juddugul amin noonu nga juddu ami noon boo ami boo nekkee kilifa day rawati seetal loolu ki juddu bees takk am noonu juddoogul am noon su juddoo ba sax sikkimam ci la noonam di gën a fës waaye dara li noon yi bëggoon ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam defoon nañ ko ci moom def nañu lépp ci yeneen bi waaye taxul mu sotti yàlla def na suul na leen payante. Du 1er au 31 octobre, achetez un produit Everyday de 1000 francs minimum dans nos boutiques et tentez de gagner de nombreux lots. bu loon moom làmbaay dana ñaaw waaw bu dul loon yonent bi dana ñaaw bu loon yonent bi dana bëri loo xam ne yaa ngi koy soxla mu tëla kon gannaaw yonent bi mooy tax nag lépp yomb la lépp ñëw bu bésam ñëwee bi mu ganee àdduna ñun itam nañu jóg jël suñu itte jël sunu matuwaay jël sunu lépp def ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ ko defee rek yàlla mën nañu may sutura mën nañu may ndam mën nañu may jàmm bu ñu bu ñu ko deful ah dana métti ci ñun yonent bi suñu ko teralul joxu ko àqam jox ko li mu moom dana métti ci ñun metti dund boo xam ne ku dund foyu faye faye rek rek du dund dund da ngay dund xam ne yaa ngi dund wala nga dee nga xam ne yaa ngi dee ah, dundal baa nga dee kon nit ki dafa war a def lu koy tax dund moytu luy tax muy foyo foyo sànq rek ndoye moo koy wax ne ma woyi Euh, war nga wax ci réseaux sociaux yi ñiy saaga mais ñiy saaga loo leen manal yoo leen manal ki tànn dagg bi jëme ci nit ti moom boo daggee jëme ci moom yëgu ay e, jaru ko su la daggalee yow nga mer yow soo ko daggalee yëgu ko ana pexe amul pexe fi su fekkoon ne day nit koo xam ne sax dafay def xamul nga woo ko yedd ko ne ko lii ngay def bàyyi ko lii ngay def amul njëriñ lii tooñ la mu bàyyi ko xam ne looloo ko neex mu toog rek dagg jëme ci Iran dagg jëme ci ndooy dagg jëm ku ko neex rek tey Iran neex na ko bàyyi na ko ëllëg na xari na ko saaga na ko mais mën loo ci dara kooku doo mën lu dul bàyyi ko àdduna bu àdduna yàggee dana dana dana mas yaru parce que lu fi nit di def bés dina ñëw nga yaru waaw bés dina ñëw nga yaru Serigne Touba ne na man faala maashaa laqiya maasaa koy def lu la neex def daa xëy bis dajeeg la neexul koy def lu la neex def daa xëy dajeeg lu la neexul kon da ngay fexe ba li ngay def na defu li ngay def na yenu maanaa li ngay def nañ ko bëgg kon donc daal euh, bu ñu ko seetaanee ah pexe amul bu ñu ko seetaanul pexe amul waaye nag du tee ñu wax da ngay wax dana du ñàkk koo xam ne dana dégg li ngay wax jëfandikoo ko waaye am na koo xam ne bu ko dégg waaye au yow eh, bu ñu kenn fonto waaw bu ñu kenn rey donc bu ñu kenn rey nag mooy yàq wax ji boo defee ñiy wax nañ wax rek ñiy gëm danañ gëm rek ñiy weddi weddi rek waaye ñiy wax nañu wax ñiy wax nañu wax réew mi daal moom soo da ngay dem ba déglu ay déglu te ay ay yii da dem ba du la intéressé parce que kenn du wax lu rafet palaato yi ñu ngi fi euh, nekk fële ñee ne fële ñee ne fële ku ne ak la ngay wax ku ne nag gëmuloo li ngay wax su fekkoon ne sax gëm nañ ko à la mais dañ koo gëmul suñ ko gëmoon di moins nga xam ne kii di wax gëm na ko na na na naa jàpp ci leen wax mais gëmu ko day wax nii rek fuural xumbal nangam nangam moo tax du jur njëriñ Sëriñ Tuubaa wax naa leen ne ku am bàndam tegal ma ko ma fay la nangam loo ma laaj danaa la ko fay Seydil Hadji Malick ku am bàndam tegal ma ko loo ma laaj danaa la ko fay mais tey ñaataa leen gëm ñaata leen gëm ñaata nit a leen gëm amul rajo amul journal amul site internet amul dara dara dara dara kee nga tuwaawoon kene nekk njaareem ñi gëm ñëpp ànd ñoom ñoom euh, ci ci la ñu gëmee ci la muqaddam jógee ci la cheikh yi jógee ci la ñëpp jógee xool xoolal ñun man fii ma toog tey buñ ko tegee adduna bi yëpp lay daj su di site internet yi suñ ko tegee adduna bi yëpp lay daj mais booba lañ la gën a saaga booba lañ la gën a saaga parce que dañu xam ne gëmuloo ko gëmuloo ko li ngay wax gëmuloo ko nit nag bu waxee wax te gëmul la muy wax kenn du ko ko gëmal mag ñi nag seen ëtt lañ daan toog Euh, di wax xaala xaala rasulu wax ja yegg fu ne wa laqad wasalna lahumul qawla laallahum yatadakkaruuna yàlla nee na booy wax te ma tax may jël sa wax jubbu ko foo xam ne bo booy waxti yàlla taxul du fa yegg walla bu fa yeggee doo ci dégg lu aw saaga doo ca dégg lu aw xas doo ci dégg lu ñaaw nañu defar wax yi wax yi nañ kenn xamul lan la kenn xamul looy déglu ci àdduna waaw sooy déglu plateau yi da ruus waaw kii day si jël sëriñ bële kale jël sëriñ bële ku ne jël ki nga gëm nga def ko mbër te yow ki nga gëm doo ko roy doo ko roy doo ko roy ci benn jamono doxalinam waxinam jëfinam doo ci roy dara yow daal taalibe laa woy ko ko tudduma saaga la pare naa ci mais àdduna wanaa noonu nañu góor góorlu dellu gannaaw seet sunuy wax seet sunuy jëf plateau yi daal plateau yi daal plateau yii ah ñaaw na de ñaaw na lool lool nañ ko jéem a rafetal nañ ko jéem a rafetal nañ ko jéem a rafetal ba benn alxames ci waxtu yi incha allah taala bakkan neex te yomb. Du 1 au octobre, achetez un produit Everyday de 1000 francs minimum dans nos boutiques et tentez de gagner de nombreux lots. fas yéene waajal bu baax a baax lu jëm ci élection locale yooyu ñun nag ñu fas yéene waxtaanee euh, tomb bu amam solo muy élection locale yu ñu jëm ñu seetlu ne coalition yi ci juddu bari na lool waaye jafe-jafe bu ñu am te moo xam ci pouvoir bi wala opposition bi lenn rek la mooy euh, jafe-jafe investiture yi en en tout cas ci seen ay candidat ci gox-goxaat yi ne ci réew mi loolu nag ngir waxtaane ko am na lu mbégte dalal fii ay coalition incha allah ak ñoom daañu ak ñoom waxtaan euh, diagnostiqué jafe-jafe boobee coalition yi am euh, kuñ ci njëkk dala nag bokk na ci Nafissatou euh, Diallo moom nag euh, kenn dootu ko présenter ti ci parti démocratique sénégalais waaye itam di membre bu coalition wallu Sénégal Nafi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax am mbégte dalal la ci 90 mille chrono. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di nuyu maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. Mhm. di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan di kontaan trop ci invitation bi. très bien merci beaucoup ñun itam bég nañu lool ci disponibilité bi ak wuyu si bi cas euh, ci bile émission euh, am nañu itam mbégte dalal fii docteur Djibril Sarr moom jiite mouvement alliance pour une nouvelle direction waaye taxawal wala fas yéene taxawal ab coalition bu am solo nga xamante ni du mën a guléet la waaye fu mouvement citoyen yi boole booloo. doon benn am nañu lu ñu bëgg en tout cas ci élection yu ñu jëm ñu ngi lay nuyu bu baax a baax docteur am mbégte dalalaat la ci locaux yi Sen TV rawatina ci émission bi di 90 minutes chrono. jërëjëf euh, Mohamed euh, maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan tey Sen TV fii ci Sénégal ak fii ci diaspora bi. Mhm. di am mbégte tamit di bokk ak plateau bi ñu sama naataango yi ma ko seqal. Mhm. donc di euh, amaat mbégte encore di wax ci lii tax nga invité ma. Mhm. muy wax ci li nga xam ni moom mooy Ali Kalaj bi muy coalition yi nga xam ni moom lañ demal ci élection locale yi ñu jëm. du ci benn yoon itam dinañ ci ànd ak Bathie Ciss moom bokk ci parti bi di également bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax bàcc yow itam amati mbégte dalal la bu baax a baax ci 90 minutes chrono. jërëjëf Mohamed ñu ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi fuñ ci manti nekk ci réew mi ak bitim réew di am plaisir euh, ñëw fii kontaan ak mbégte waxtaan ak euh, sénégalais yi. ci li nga xamante ni moom mooy élection locale yi aussi di am ndegte bokk ak ñi ñu bokkal plateau bi ñoom ñëpp. selbe Linguère Diouf moom itam kenn dootu ko présenté miin ngeen ko ci plateau yi waaye itam ñu wax ne moo bokk na ci membre bu grande coalition gëm sa bopp Selbé yow itam nuyu nañ la bu baax a baax am mbégte dalale ci 90 minutes chrono. bismillah onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim dellu wax rek santaat yàlla julli ci sang-sang yi di Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam di nuyu ñi nga xamante ni macha allah mooy nit ñu tedd ñuy bokkal plateau mhm. waaye tamit dañuy jël nuyoo bi jiital itam suñu kilifa diine yi ak aada yi mhm. di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ñaan ci yàlla li nga xam ne dañ koy waxtaanee ci mbirum élection yi ñuy jub si yàlla nañ ci yàlla defal yiw ak barke ba lépp lu ñu fiy wax askan waa Sénégal mën ko jël mën ko accepté mën koo nangu te mu doon nag du doon leneen lu dul luy defaraat seen euh, réewum Sénégal ak askanu waa Sénégal ci kàttanu suñu borom ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam très bien mu doon ay coalition yi nga xamante ne nii ràññeeku nañu lool en tout cas ci paysage politique bu Sénégal ñii lañu fas yéene àndal mbokk yi ci seen émission 90 minutes chrono léegi-léegi ñu tàbbi ci sunu temu tey moo di rek local et investiture les coalitions euh, face aux menaces d'implosion alors Nafi euh, kàddu gi ci yow lañ koy njëkk a jox euh, nga représenté fii coalition wàllu Sénégal ginnaaw fi ngeen tàmbalee mooy waxtaan bi doxoon bon am na ñu ne waxtaan am na am na ñu ne amul ci seen digganteeg waa Yewwi Sénégal ñu teg ci ay diir ngeen créé parti démocratique sénégal ak yeneen ci ay parti wala mouvement coalition bi di wàllu Sénégal laaj bi njëkk te muy ñu ko fas yéene ko séddale ñëpp mooy euh, naka nga jàngatee jafe-jafe yi coalition amee euh, ci Sénégal ngir investir investir justement seeni ay candidats ci gox-goxaat yi. waaw maa ngi lay remercier ci question bi mais je voudrais avant mënuma ñëw ba Sen TV te du ma naqarlu li ñu teg groupe de presse bi may woote rek euh, le régime mu comprendre ni c'est des milliers de gens qui travaillent ici. c'est des milliers de gens qui travaillent ici booy xeex nit homme politique faut faire la différence entre l'homme politique ke Bougane et les entre les gens qui travaillent ici damay faral di gis ci dëkku tubaab yi sax euh, entreprise même bu amee problème wala sax mu doon dëgg dañuy woo waxtaan pour sauver les emplois et sauver les familles qui sont derrière waxuma la nag suñu dëkk bi nga xamante ni am fi emplois dafa metti ku ne war a boot cent personnes ci ginnaawam donc may rappeler le régime di interpeller le président Macky Sall pour mu bàyyi xel ci yenn yi bàyyi xel ci emploi yu ñu war a sauver euh, bañ a xoqatal gis Bougane simplement en tant que politique mais def la différence ak Euh, média groupe de presse bi euh, bi mu amee euh, donc pour ñëw ci sa question mmh. effectivement euh, ñun dañu waroon ànd mm-hmm. tuddul woon Yewwi Askan Wi mm-hmm. bokkuñu woon ci benn coalition il faut le souligner très clairement mm-hmm. ay waxtaan la ñu doon am ñun dañ ñoo seet si Khalifa Sall moo njëkk sol ne foog ñu ànd. ñu dem ba ci biir Sonko jaabante na ba sonn pour foog ñu ànd waaye ñun parti démocratique sénégalais man damay laajte. ndax koo xamante ni yaa ngi am 127 maires koo xamante ni boobu ba léegi boo te toujours roi ou faiseur de roi depuis 78 ñi ngi dem élection chaque jour ñu ne PDSD na bu ñu ñëwee on est soit roi ou faiseur de roi waa parti boobu nga xam ne surtout tout le territoire sénégalais et diaspora mi ngi am représentativité ndax day toog ñu koy jiital wala di jël ay décisions yoo xamante ni euh, pour quelle je ne sais quelle raison en tout cas le PDS ne s'est pas entendu avec euh, avec euh, waa tey ñi formé tey Yewwi mm-hmm. et on s'est retiré pour aller faire notre coalition mm-hmm. donc coalition boobu ñu ngi ko ànd ak ak jot na ak CRD ñooñu ay coalition lañu ànd ko ak bokk gis-gis euh, AJ/PADS c'est des alliés traditionnels du du parti démocratique sénégalais donc pour dem ci élection yi léegi ci mbiru investiture euh, évidemment que investiture du du yomb mais yow bu fekkee li nga li la tax a jukk euh, c'est non pas simplement euh, euh, man maa fi war a ne mais pour sauver un peu les les les les les communes gestion yi pour ngeen mun a représenter indi un nouveau souffle lu loo defoon avant bu baaxul nga yokk ko parce que yéen ñëpp ay booloo par exemple tey di nga gis ñu am expérience PDS bokk gis-gis ils ont l'expérience mais ku mel ni Abdoul mbay wala ku mel ni du Lamine Diallo wala keneen ak keneen ñoom am nañ compétence bi itam donc ñu boole yooyu yëpp xool qu'est-ce au niveau des communes pour ñu mën a am un programme boo xam ni dina mën a changer la gestion des collectivités territoriales donc loolu man gëwuma ni dinañ ci am problème effectivement en politique c'est obligatoire di nga gis kii bëgg lii kii bëgg lii mais dafa am loo xamante ni c'est le bon sens qu'est-ce qui peut nous faire gagner man par exemple su ma xamee ne ni que fa ma dëkk munuma munuma yóbbu keneen a ma fa moo moo ma fa ëpp doole dama war a am humilité euh, reconnaître ko dem Euh, ci ginnaaw kooku noonu rek la ñuy gagné le maximum opposition bi di gagné le maximum. de collectivité locale immunité boobu est-ce que dañu war a xaar décision bi jógee euh, ci kaw a kaw avec le président Abdoulaye Wade wala yéen di ngeen ko mën a gérer entre vous euh, ba comme ci doon ku ne gox bi nga nekk xam nga. ku fa war a hmm. toog nga bàyyi ko mu dem ci élection locale yi. xam nga PDS dañuy faral di wax nit ñi ils pensent toujours que c'est le président Wade ñun. 2014 hmm. dem nañ local hmm. législative fu nekk da ngeen di dem. yéenay tabb seen seen candidat hmm. par exemple dañuy monter ay comités électoraux hmm. ñoom ñooy waxtaan seen biir c'est euh, day am tous les partis membres de la coalition ñoom ñooy waxtaan tabb kenn hmm. ñëpp signé d'accord ne par exemple ça peut être quelqu'un de âgé ñu ne moo ëpp fii nañ waxante dëgg il est plus fort que le PDS ici donc ñun ñooy waxtaan ci comité électoral bi dem nag yóbbu ko au niveau soo ko yóbbu au niveau du comité de pilotage mais tout toutes les communes ont la latitude de choisir leur candidat mais de façon inclusive c'est-à-dire amul ñëw bedd kii wala ñëw man maa nekk fii déedéet hmm. yépp dañuy toog parce que ñoom ñoo yem dignité hmm. les partis sont d'égale dignité dans les coalitions très bien mais su amee problème hmm. effectivement il a un comité de pilotage il y a il y a des commissions yoo xamante ni dinañ woo ñëpp pour xool nan leen di trouver euh, consensus pour ñu mun a déggoo mais gëm naa ni problème boobu duñ ko am parce que ba tey may wax ak yow Euh, benn coow. bu amagum au niveau de la. loolu mën nañ ko reconnaître euh, PDS de la coalition euh, wallu Sénégal alors tout le contraire bàcc bu coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne le président de la République joxe woon na déjà le ton ci ba mu doon inauguré ay mbir ci fan yee ñu génn waxoon ne nañ ko déglu bu dee coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gis ne fan yi gox yu bëri nga xam ne ay maire APR ñoo fa nekk wala Benno Bokk Yaakaar ñu ngi investir. ña fa nekk di ay maire actuellement c'est-à-dire ay militants ñoom ñu ngi investir ñi ñu bëgg ñu euh, nekk maire ci élection yu ñu jëm est-ce que du doon euh, benn pression ci président de la république bi nga xam ne euh, jàpp nañu ne moom moo yor cëgal guy. <coughs> merci beaucoup ñu ngi delluwaat di nuyuwaat ñi bokkal plateau bi di waat téléspectateurs yi alors loolu dafay wone ni coalition bi ñu nekk am na vitalité démocratique parce que. su fekkee am na benn maire bu nekk ci localité am na ñu ànd ak moom mën nañoo dajowee dajaloo ne ñun diw la ñu àndal. Mm-hmm. ok euh, ñeneen mën a dajaloo ne ñun ànduñu maire bi mais ñun diw moom moom lañu bëgg mu ñu doon suñu candidat. Mm-hmm. loolu c'est tout à fait normal c'est dans le jeu démocratique ci alliance. mais <coughs> ñu rappeler que. Benno Bokk Yaakaar aussi alliance la boo xamante ni alliance bu éprouvé la donc je pense que depuis 2012 alliance la bu am. Euh, chaque élection ñu ne élection yi benn Bokk Yaakaar dina tas ñu génne ci victoire ba pare coalition bi di gën di am doole muy am yeneen adhérents ça veut dire que <clears throat> un y la majorité des populations yu ànd ak coalition benn Bokk Yaakaar deuxièmement on est assez expérimenté pour pouvoir gérer euh, ay euh, élections gérer ay investiture ba pare bu ñu paree parce que fu investiture am fu tànn am foo mu am ñu kontaan am ñu kontaanul parce que euh, benn mairie mënta am ñetti maire mais dafa gën a fës ci euh, coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que le président liggéeyam dina yomb par rapport ak tànn gi justement c'est tout à fait normal parce que coalition Benno Bokk moom moo nekk au pouvoir mhm. xam ne nekk ñu au pouvoir mhm. mairie yi ci ëpp coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko yor ci biir Euh, coalition benn Bokk Yaakaar dans une localité dina am ñoo xam te ni ànduñu ak maire bi donte ñu bokk coalition. Mhm. tere si aussi euh, dinañ exprimer seen seen vœu que bëgg nañu ñu changer maire bi wala bëgg nañu ñoom doon candidat. Mhm. donc loolu c'est tout à fait normal li doon li doon bon mooy. ñu muselé ñëpp ne bu kenn wax ne candidat la bu kenn wax mais kenn ku nekk sañ na ne candidat la mais en réalité euh, et en définitive c'est la coalition moom mooy toog réunir daat ne dëkk sàngam diw moo fay candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar dëkk sàngam diw moo fay candidat coalition benn Bokk Yaakaar leneen li ñu ciy dolli mooy euh, élection locale euh, c'est une élection à géométrie variable mm-hmm. euh, mooy euh, réalité Dakar mën a bañ a nekk réalité une autre localité. de sorte que il faut nga am une intelligence et une souplesse. bu nga xamante ni da nga mën a boole yooyu yëpp. mais toujours est-il que fu tànn am à la kuliyaalin dina am ñoo xamante ni d'accord nañu. dina am ñoo xamante ni d'accorduñu. mais maintenant quelqu'un qui est militant dans un parti qui est dans une coalition. Mhm. parce que coalition bi est composée de partis. mu nekk ci parti nekk ci une coalition. Mhm. on peut pas lui refuser mu am ay ambition. est-ce que est-ce que du jur frustration euh, ñii di ci ay militants yeneen ci ay maire nekk ci ay gox tabb seen maire investir ko. et que ci ginnaaw président de la république def beneen choix est-ce que du jur leneen implosion boobu justement oui c'est-à-dire bu juree implosion c'est parce que dañu xool suñu bopp xooluñu soit intérêt bi nga xamante nii moom mooy njëkk mooy intérêt commune bi d'accord parce que en réalité quel que soit choix bu ñu mënti def li ñu war a jiital man bu ma nekkee un militant d'un parti politique euh, dafa am lu tax ma nekk militant nekk mu militant parce que je veux Mmh. nekkuma militant parce que je vais être député mmh. ne nekkuma militant parce que je vais ministre mmh. dama nekk militant parce que je crois que dama bokk ci parti boo xam ne seen projet mooy fexe ba fi ma dëkk euh, ñu am fa une meilleure gestion fexe ba beneen dëkk ñu am fi une meilleure gestion. meilleure gestion yooyu bu ñu ko agrégé au niveau national ñu am une meilleure gestion. donc bu ma nekkee ci parti politique. bu ma nekkee di militer. loolu mooy sama loolu mooy sama objectif. donc bu dee loolu mooy sama objectif. kon donc ma personne ne devient plus importante. mais communauté bi. lan la ñu bëgg ak quelle est la personne idéale pour mën a. conduire destinée communauté bi. c'est vrai alors xam naa ça va pas ça va ça va pas être facile du tout ak waa coalition benn bokk yaakaar dinañ ko gën a xóotal ci biir ci biir débat bi ñu ñëw ci Selbe Selbe nga teewal fii grande coalition gëm sa bopp tey euh, bokk na ci seen activité muy euh, jigéen ñeeg euh, cadre yeeg waa diaspora beeg enseignant ak ndaw ñi di jébbal le président coalition bi seen i seen participation ci question élection yu ñuy jëm alors. gis nañu ne également temps yi yéen a am ay adhésion ndax amoo leen jafe-jafe yi yeneen coalition yi am par rapport ak tànn ay nit euh, ci euh, gox-goxaat yi muy investiture yi. waaw bisimilah alhamdulilah nga may ma rek laataa ñuy dugg sax ci question boobu. Mhm. ñaanal euh, la xalif général des Layènes. Mhm. bi nga xam ne day soog a toog. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla ci barke maamam ba maam Seydina Limaamu Laahi alayhi salaatu wa salaam. bi oyof lool. te mu nekk loo xamante ni wërsëg lay doon mm. xéewal lay doon encore une fois de plus ci biir askan waa Sénégal mm-hmm. di ñëw aussi di souhaiter un joyeux anniversaire suñu président mm-hmm. muy lu président Bougane Gueye Dany mm-hmm. ndax euh, li gone yi di wax naan bés bu dellu si dafa neex waaye ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla yàlla suturaal ko yàlla defal ko ci ndam moom moo xamit li mu bëgg ak li mu yéene ci waa Sénégal ak ci njabootam yàlla na ko ko yàlla defal ci barke Mouhamed alayhi salaatu wasalaam donc su may ñëw aussi ci sa ci sa question. Mhm. ñun dañuy wax ne euh, sant yàlla nit booy dugg ci dara. Mhm. dangay ngay xam d'abord li ngay dugg lan la. Mhm. foog naa ne boo demee ba jóg ne yaa ngi dugg ci la grande coalition gëm sa bopp. i foog nga xam d'abord philosophie gëm sa bopp. mooy lan d'abord. donc il faut que nit ñi xam bu ñu demee ba ñuy wax naan euh, nous devons tout faire mhm. pour avoir une économie intravertie maanaam lutter contre l'extraversion de notre économie mhm. mooy gëm sa bopp mhm. tey ji booy dégg ay slogan yoo xamante ni ñu ngi koy wax fii ay France dégage c'est pas parce que dañu ne la France est une mauvaise chose non mais dañoo ne ñun nañu gëm suñuy propre ressources nañu gëm suñuy propre force nañu gëm suñuy compétence loolu mooy gëm sa bopp gëm sa bopp mooy laal encore parce que mën nañ fi toog ba suba mais temps bi dañ dañ ko daf ñuy njatt gëm sa bopp mooy ñu fexe ba valeur yi nga xam ne moom la fi maam bàyyi bàyyi te mu commencé di raaf dañ koy indiwaat tegaat ko ba ku nekk mën ci gis sa bopp ci réew mi nga xam ne mooy réewum Sénégal gëm sa bopp mooy lan mooy askan wi nga xamante ni fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi donte dañuy génn dem bitim réew bu ñu ñëwee ñu gis seen bopp ci réew mi nga xam ne moom mooy Sénégal mhm. lool day nekk gëm sa bopp lu mel noonu nag bu fekkee ne da xam mooy lan ba nga ñëw ba dugg ci biir bu boobaa jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ngi koy dégg nag ñu ngi koy dégg te xam nañ ne aussi mi ngi am ci biir yenn coalition yi loolu ñu sant nañu yàlla ba xam nañ ne aussi du am ci la grande coalition gëm sa bopp noonu mm-hmm. parce que la grande coalition gëm sa bopp li ñu njëkk a teg xamal ko mooy mm-hmm. euh, élection yi ñu jëm du élection wu politiciens yi mm-hmm. élection yi ñu jëm du élection yoo xamante ni politiciens yi dañu war a ñëw pour defaraat seeni carrière élection yi ñu jëm élection wu askan wi la à la base ñoom ñi nga xamante ni nit ñi ñi ñu dëkkal ñoo am ak ñoom jàmm ñoo am ak ñoom salaam ñoo leen di jàppale jàppale nag nit ki mën nga jël sa alal di ko sotti ci commune ba mhm. alors que bu ñu la joxee mairie bi nga jaay commune bi waxuñu boobu jàppale mooy ñi nga xamante ne am nañuy gëm-gëm am ñu yaakaar ci seeni commune am na ñu yaakaar ci seeni askan te yërëm nañu seeni askan loolu dafa nekk loo xam ne principe yi nga xam ne moom la gëm sa bopp njëkk a taxawal donc du du nekk choix bu difficile ci président coalition gëm sa bopp mu tànn ñi war ci gox goxaat yi nga xam ne déedéet du nekk ci quoi du nekk euh, choix bu difficile ci moom parce que loolu li ñuy waxtaane la mooy li ma la ci njalbeen mm-hmm. boo xamee fi ngay dugg d'accord xam lan mooy philosophie am kon boo fa duggee am na noo war a doxalee mm-hmm. maanaam ñun li ñuy jiital d'accord nañ jiital compétence mais compétence googu yëpp ñu ngi koy jëlee ca ca base ba ñu koy jëlee ca commune ba la askan wi bëgg ñun moom lañ leen di fekk si parce que Mohamed bu ñu fàtte ne élection ñuy dugg dafa nekk ay élection yoo xamante ni dañoo war a dafa aaju ñu ñëw defaraat dafa aaju ñu ñëw joyanti dafa aaju ñu ñëw ñoŋal lan li ñuy ñoŋal mooy lan moom mooy la gouvernance locale ñu xam ne ci biir commune yi dafa am ay compétences li ñuy nangu des compétences transférées bu buñ ci jëlee lu ci mel ni ay éducation santé cadre de vie ak yeneen ak yeneen ñu xam ne ak surtout côté jeunesse et sport xam ne tey ji askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir base bi askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir commune bi war nañu gën a tamit saytu gën a xippi seen bët gën a xool loolu dafay am lu muy dimbalee ki nga xam ne moom moo jiite coalition bi te loolu sant nañ ci yàlla ci biir coalition gëm sa bopp euh, sant nañ ci yàlla yàlla nañ yàlla lafal cat ah, ah, dinañ ci dinañ ci ñëw gën ko gën ko xóotal alors euh, docteur yow nga jiite alliance pour une nouvelle direction euh, gulet nag ñu gis mouvement citoyen yi yi taxaw temb ñoom itam ngir fas yéene samp seenum dënd bokk euh, ci élection yu ñu jëm c'est vrai que ne aujourd'hui même parti politique et coalition yi boo xoolee ci seen i ay coalition gis nañu ne euh, présent euh, présence su mouvement citoyen yu bari bari ñu ngi ci biir comme quoi ñoom wane nañu seenu wane nañu li ñu mën ak li ñu li ñu capable def moo tax ñu leen di approcher souvent yéen ngeen di liggéey wala ngeen fas yéene liggéey ci coalition boo xam ne dafay ëmb uniquement mouvement citoyen pourquoi ce choix ak lu tax mouvement citoyen yi bëgg a euh, samp seenum dënd ci élection ni mu jëm. jërëjëf euh, Mohamed ci question bi euh, balaa may tontu question bi damay nekk sur la même lancée que sama sœur Nafissatou di naqarlu li nga xam ni actuellement moom la ñu teg ki nga xam ni mooy le président Bougane qui est un chef d'entreprise ñëpp xam nañ Bougane chef d'entreprise la Bougane il pèse presque si cent employés ñu mel noonu je pense que état bi daf leen war a protéger waru leen bundu xataal comme ni ko Nafisatu waxee rek Bougane am nay employé am na ay groupe de médias la yor ñoo xam ne dañu yor ay famille di fi liggéey donc l' a le devoir et l' obligation de protéger l' entreprise de Bougane qui pèse 600 emploi donc loolu tamit dama ci bëggoon ñëw di ñëw tamit ci gàmm gi nga xam ne ñoom moom la ñu dëgmal gàmm gi nga xam ne le 18 la di ñaan yàlla ñu egg si ci jàmm ci bisimilahi rahmaani rahim def ko ci alxam eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla aussi lépp lu ñu ñaan ci gàmm gi yàlla nangul ko si réew mi am jàmm Sénégal am jàmm ñu dem ci élection yu yu apaisé yoo xam ne ku ci nekk lu la yàlla jox rek nga xam ne loolu la la yàlla jox ñun nag euh, coalition citoyenne lañ tudd tur bi dama koy teer fii tey parce que joxuñu ma ndigal pour ma pour ma lim tur bi mais c'est une coalition citoyenne mhm. boo xam ne man ci laa bokk man je suis le président du mouvement alliance pour une nouvelle direction bi mhm. nga xam ni euh, mouvement la boo xam ni day yëngu depuis 2017 ci ci ci ci askan bi mhm. maanaam lépp li nga xam ne askan bi mi ngi ci ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu environnement bi ñun suñu mouvement dañ ci dañ ciy yëngatu avec femmes ñu àndal avec jeune avec euh, jeunes ñu àndal mhm. léegi da ngay xool Mohamed léegi boo nekkee sa gox mhm. li nga xam ne maire bi moom la war a def population bi ñooy jóg tey ñëw na la ah docteur suñu lamp bi baaxul bëri na ci ay gox absolument mhm. loolu laa gis docteur ndox mi day taa xam naa bàcc dina ci ñëw leeral garab garab non léegi dama dama wax les politiques ont échoué parce que léegi ku ci am problème dootoo dem ci maire bi da dem ci ki nga xam ne moo nekk ci gox bi amal njëriñ gox bi di def ci gox bi ci kooku ngay dem pour mu régler sa problème en tout cas man fi ma dëkk Thiès loolu moo fa am zone bi ñu dëkk da gis làmp yi des fois du ñu am éclairage du am éclairage koñ yi day taa assainissement ku fa jóg rek dangay jubal ci benn nit boo xam ni c'est un citoyen dëkk ci koñ bi moom ngay jubal pour mu defar loolu ñooñu nag population boobu nga xam ne lépp li nga xam ne day manqué foofu ñooy ñëw ci ñooñu di leen ko wax ñooñu ñoo bëgg tey ñun ñu mel ni ñun nekk tey ay maire nekk ay conseils municipaux nekk ay président de conseil département population boobu ñoom ñoo jóg ne ñun dañoo war a ñu jóg taxaw pour régler seeni problème parce ils ont vu que les politiques ont échoué ngeen baal ma nga nga nga baal ma madame na les politiques ñoo pourquoi mhm. mhm. man sama bopp laa koy xool man mosuma yor nomba nom mais des fois damay def comme li maire di def mhm. ñooñu nag les maires thiessois yi def loolu loolu la ñu dajale ci benn coalition boo xam ne damay teer la parce que weekend bi lañ koy euh, la ñu la ñu fësal non bi ñooñu la ñu dajale ak ay ñoo xam ne ay responsable départementalu parti la ñu mais dañoo génn seen parti ñëw bokk ci suñu coalition mooy une coalition citoyenne bu ñu waxee coalition citoyenne moom mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci gox ba am fa njëriñ am fa njëriñ mhm. dimbali waa gox ga mhm. nga nekk opposition nga nekk pouvoir nga nekk société civile mhm. ñooñu la ñu woo tey si sunu si sunu coalition mais est-ce que am ngeen chance bi est-ce que am ngeen chance bi ngir yegg ca cëppaandaw la face à des coalitions yu toll nii <laughs> wàllu Sénégal ku ko xam ne li euh, muy représenté Benno Bokk Yaakaar ak yeneen coalition gëm sa bopp ak yeeweeg ñu mel noonu xam nga Mohamed ñu bëri ñi ngi naan eh, est-ce que choix bi dina dina dina facile non du facile ci ci ci askan wi déjà xam nga ñu bëri ñi ngi naan ñi ngi naan ñi ngi naan yéen da ngeen di coalition la parce que vous êtes devant des partis yoo xam ni ay coalition coalition yu mag comme ay Benno Bokk Yaakaar comme ay. coalition wàllu wàllu uh-huh. wàllu et mais dama la bëgg wax ni nit ñi nañ fàttali ko aussi le mode d' élection a changé. Mm-hmm. maintenant il ne n' appartient plus au parti. Ah, léegi képp kuy dem élection. Mm-hmm. xam bu ñu gañee kan mooy nekk maire. Mm-hmm. le mode d' élection a changé. donc léegi képp ki nga xam ni mooy jiite list bi majoritairement moom mooy doon le maire kooku la nit ñi di votel donc il léegi dootul. élection yi gagné nañ ko chef de parti bi mooy jël ku ko neex mu teg ko foofu ne kii moom mooy diriger askan bi te bu te fekk askan bi sax duñ ko xam. Hmm. léegi dañuy gis conseil municipal boo xam day nekk ci benn parti mais euh, day nekk ci benn gox day làqatu waa goxam. Hmm. kenn du xam ni kan mooy conseil municipal bi. Hmm. bu problème amee nii day làqatu kenn du ko xam sax donc ñu mel ni ñun ak ñu mel ni sunu naataango yi. ci ñun la ñuy dem. pour pour ñu régler les problèmes ñooñu nag ñun nag léegi. ak ñu mel ni ñun ñoo dajaloo nag nekk ci benn coalition. pour mën a changer les yàgg na depuis depuis des années mhm. gestion collectivité locale yi baaxul te ñun on a constaté ça mhm. y yi eu des failles donc dañu bëgg léegi ñu changer. Mmh. jox ko ñi nga xam ni c'est des citoyens yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi. Mmh. ñoo xam ne politique ñu defuñu dara ñu jox leen ñu essayer leen. loolu tamit dafa jot quoi parce que les politiques quand même. Mmh. man je trouve que ils ont échoué quoi. absolument lu am solo alors Nafi euh, dañuy ñëwaat ci yow euh, laaj bi ma la am bëgg am envie laaj mooy aujourd'hui yaa ngi ko wax sànq am ngeen plus de cent et quelques maires PDS miin na déjà euh, élection moom ndax yàgg na dem élection ak ñi ngeen àndal sax ci coalition Wallu également miin nañu terrain bi est-ce que face à ces Euh, coalition yi nga xam ne juddu nañu ku nekk bëgg am dara jàpp nga ni euh, mbir mi dina yomb élection yi ñu jëm bien évidemment ci wàllu Sénégal. souvent damay ree ci discours yi politiciens avant muy nekk politicien dafa nekk citoyen sénégalais ñu bon ñi nag bëri nañ ba ñu foog ni ñëpp benn lañ non non pourquoi à chaque fois man depuis ma xàmme maa ngi dégg discours mouvement citoyen yi mouvement citoyen yi gox goxaan yi mais. mouvement citoyen politicien yi baaxuñu et pourtant quand on vient les en général les populations rechoisissent ñooñu ñu indexé comme politicien mm -hmm. euh, politicien la seule différence dafa bokk ci parti mm -hmm. may rappeler ni que coalition yi démb ñun investir nañ kenn mm-hmm. euh, ànd ak PDS nangu mouvement mouvement de soutien la am parti bu mel ni PDS dafa am instance boo xam ni mouvement de soutien am cellule d'entreprise c'est des mouvements c'est des c'est de euh, comme vous. c'est comme AND. Euh, euh, <laughs> voilà comme vous c'est-à-dire nous au sein de nos instances dañu mm-hmm. prévoir même les cellules d'entreprise mm-hmm. commerçants yi. lépp lépp ci am am des mouvements de soutien. bien mouvement de soutien ak Karim am na mu suñu politique. Mm-hmm. mouvement de soutien yoo xamante ni ci gox-goxaan la ñu nekk ñoom seen conviction la ñu am bokk ci FPDR bokk ci FRN. ñooñu ñëpp musuñu politique c'est mm-hmm. pas des politiciens loolu la ñu bëri di réere mbir dañu foog ni le parti seulement mais parti bi day englobé ci ci autour de lui des des satellites que sont des mouvements citoyens mm-hmm. que son des des des, des associations et cetera yoo xam ne ils ont choisi de pas faire de politique mm-hmm. moo tax souvent ñu ñu dañuy am betteel ne pourquoi parti politique pourtant politicien bi nekk fii ah moom de defu fi woon dara mais ñamu àndal c'est des gens aussi qui tout comme les mouvements dans des mouvements citoyens et cetera c'est ça qu'ils ne comprennent pas c'est une coalition qui comprend des satellites euh, de ce genre euh, ma may wax ni tiitaange mënul am ñun yëf yi miin nañ ko xam nga PDS sax euh, tàmmul di nangu wax ju bëri ci maa fi ne diwa fi ne presse bi nii ne ñun toujours yàlla dimbale nañu bu ñu paree ci élection dañu naan paa bi jinnee ko voter <laughs> paa bi ay nit ñi fu ñu jógee <laughs> ay PDS dee woon na ah, dañu lu parce qu'on travaille à la base xam nga man damay toog damay damay damay damay rey par exemple rek avant est ci que xam nga ni phénomène mars bi bi ñëpp di wax PDS mi ngi woon six mois tourné dans des villages c'est pour placer des cartes absolument fa ñu ay xam nga ñaata mille cartes moo moo moo demagum ñoom Famara Senghor Saliou Dia placé nañ 700000 cartes ñu bokk PDS xam nga loolu sénégalais xamuñu ko 700000 yooyu c'est des votes parrainage bi ñuy wax 2019 ñun suñu candidat 996000 parrainage la ñu am. Mmh. te pourtant on a commencé une semaine après dañu tardé woon ci programme bi. 986 000 par un te doublon bu am machine bi da koy refuser. informatiser nit ñi dañuy liggéey à leur da ngay gis ñu ñu ñuy xare ci kii bi mais ñun du ñu parti. Mm-hmm. toog di ñëw lu ñu kii vidéo dugal face non. Mm-hmm. xam nga c'est pas c'est pas notre style. on pré moo tax muy bettee foo dem PDS foo dem village bi gën a reculé mm-hmm. am na militant PDS. ñi ngi ko yëg nii man commissaire politique la Euh, maa nga mbuur mais li ma gis ñuy génn mbuur gis ngeen image yi fépp fu ñu dem ñuy génn naan ñun de carte yi rek lañ doon xaar pourquoi parce que gars yi dañuy compétir ndax ba ñu jógee nguur daanu 2012 dafa am ñoo xamante ne dañu bëre cinq ministres yi àndoon ak Ablaye Wade 30 moo ci des. ñëpp ñu ñëpp a dem. député yi euh, euh, conseillers yi ñu bëre dañu dem mais base bi demu mm-hmm. et entre temps y a une nouvelle jeunesse boo xam ne dañu ñëw ñoom. Karim Wade. Hmm. la ñu gën a gëm. que le PDS ñooñu itam hmm. dañu bëgg dugg ci parti bi mouvement citoyen mouvement dugg ci parti bi. ñoom kon dañuy xare à la base euh, PDS day xare à la base mouvement citoyen bu ñu àndal itam day xare à la base pour mën a intégrer nekk responsable au niveau de la commune. Hmm. donc loolu yëpp mooy tax ni que nit ñi dañuy bett dañuy am tout le temps mbetteel. Euh, euh, bu bu bu résultat yi génnee mhm. dañu naan PDS diw dem na diw dem na bay rappeler toujours mhm. ñun depuis soixante-dix-huit depuis temps Serigne sa Sadaxta kenn ëppul woon doole Serigne sa Sadaxta ah te dafa def ba dem congrès ne day tëbal ab Ablaye Wade dem mhm. international libéral dégommé fa Ablaye Wade il a fallu une assemblée générale boo xam ne fii buntu euh, kii Mansour ñun tàmm nañ loolu c'est l'ADN du PDS et le président Wade a l'habitude de dire PDS train la à chaque gare di nga gis ñu bëri ñu wàcc mais ñiy dugg ñoo ëpp fuuf Euh, ñoo xamante ni euh, kii wuñu donc ñun on n'a pas de crainte dañuy ñaaxaat rek les militants et militants pour ñu dem dans l'unité pour ñu ànd ak coalition bu ñu àndal ñu def don de soi du lépp itam Mmh. ngay jël euh, sous prétexte que da ngay xajal ñeneen ñi aussi ñu gis ci seen bopp alors Bathie euh, yow itam mouvement de euh, mode de scrutin bi docteur wax na ko léegi dafa changé maintenant affaire bi suffrage direct la askan wi ñooy fal directement est-ce que aujourd'hui configuration boobu du mën a am jeexital ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax yéen itam hmm, crainte du mën a am face à des coalitions yu nga xam te ni taxaw nañu temm daanaka coalition opposition bi sax ñoo ëpp bu ñu leen comptabiliser face à Benno Bokk Yaakaar est-ce que aujourd'hui euh, yéen ngi nelaw dëggantaan. ah ñu nelaw euh, point les deux points fermés. Hmm. nelaw <laughs> parce que wax naa ko léegi euh, depuis 2012 quand même ñooy gagné. Hmm. depuis 2012 benn coalition bi la. Hmm. donc ça veut dire que on a l'expérience mais on a la majorité. loolu c'est de fait mais nga may ma ma ñëwaat ci je suis souvent d'accord avec le PDS. <clears throat> Euh, c'est la idée je les épouse pas mais j'ai un respect pour ce genre de partie parce que man fu ma dëkk nekk fa adjoint au première premier adjoint au maire Thiénaba da ngay gis ni PDS am na ñu organiser ñu ngi ak le am na ñu organiser mhm. la l'AFP am na ñu organisé c'est des partis traditionnels. Absolument. qui ont mode d'organisation. qui ont un mode de fonctionnement. Bien de sûr. sorte que choisir ci ñoom du jafe. parce que après da ngay topp structure yi y a un responsable y son adjoint y a y a un secrétaire politique y a un responsable des jeunes y a un responsable des femmes mm. c'est des partis qui sont structurés donc qui peuvent se permettre di def yenn type d'organisation yi mm. même su fekkee après on les taxe que c'est des partis où il y a pas de démocratie mm. mais démocratie ça commence à la base à la base pour que nit ñi dajaloo ni ñun kii la ñu bëgg mu jiital leen maintenant bu ñu bëri dajaloo kenn ku nekk am sa candidat il faut un parce que mënoo nekk candidat nekk arbitre il faut mu am arbitre et arbitre bi c'est les structures du parti au niveau départemental au niveau de la région et au niveau national si au niveau local nit ñi jubóowuñu responsable départementaux yi ñu ngi fi le responsable département secrétaire politique bi ñu waxtaan bu ñu jubóowul ñu dem en un stade supérieur ba ñuy dem au sommet où le responsable de la coalition moom en fait moom mooy def les derniers arbitrages parce que aussi on a choisi dañu choisir nekk ci organisation ni kii mooy responsable moralu organisation bi donc en fin de compte suñu juboowut ci suñu biir il arrivera un moment où moom mooy tranché su fekkee ñun li ñuy wax gëm nañ ko idéologie bu Benno Bokk Yaakaar di joxe gëm nañ ko quelles que soient les divergences qu'on peut avoir au niveau de la base il arrive un moment où kenn ku nekk nag dangay ngay teer say ambition hmm. pour l'intérêt de la localité mais aussi pour l'intérêt de notre coalition alors ça c'est c'est une première chose. est-ce que est-ce que doguma est-ce que gënul woon yomb aujourd'hui c'est pas grave est-ce que gënul woon c'est pas grave est-ce que est-ce que gënul woon yomb aujourd'hui que le président de la République génn ci investiture yi wax ne euh, localité ba fa nekk am na sama ay militants yi fa nekk nañu waxtaan seen biir choisiral seen bopp candidat que muy def déclaration publique ne nañ ko déglu. waa xam nga <clears throat> euh, expérience moom mooy tax ngay. Euh, am doxalin yu yees par rapport ak situation yu yees. 2014 mhm. demeewuloon noonu il y a eu euh, des compétitions. Mhm. où plusieurs personnes dans plusieurs localités. Mhm. bokk ànduñu woon. c' est tout à fait normal mais contexte yi bu évoluer da xam ni contexte aussi dafa évoluer man je suis premier adjoint au maire de Thiénaba mm-hmm. j'ai été élu non pas sur la base de la liste Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. mais parce que d' accord ñu woon ak choix bi nga xam ne defoon nañ ko mm-hmm. loolu c' en 2014 ak léegi il s' est plusieurs années et le contexte a fondamentalement évolué comme le contexte a fondamentalement évolué am nañ ay nouveaux adhérents la coalition est beaucoup plus large que ni mu demee woon donc c' tout à fait normal ñu def loolu mmh. leneen li nga xam te bëggoon naa ko wax mooy comme li li docteur wax léegi mmh. euh, très souvent on fait un mauvais procès aux hommes politiques mmh. parce que ni ngay nekkee ci koñ defuloo politique nit ñi di la solicité mhm. noonu la nit di nekkee ci koñ def politique yorul mhm. responsabilité nit ñi di ko solliciter. Mhm. avant même que muy agsi ci responsabilité. mu politique kii def politique. nekk ci koñ bi nekk opposition dañ koy solliciter étudiants yi dañ koy solicité euh, femmes yi dañ koy solicité nawetaan yi dañ koy solicité ki nga xamante ni mu ngi nekk ci pouvoir nekkul maire nekk ci koñ bi. aussi pareil donc du question wu. Euh, damay def politique wala defuma politique mais question wu ndax yow amal nga sa gox njariñ wala déet. mais mën nañ ko nangul ne quand même mouvement citoyen yi bu baree nii ak ni ñu leen di ni ñu dinañ ci ñëw ni ñu leen di ni ñu leen di sollicité melul noonu ci parti politique yi euh, euh, xam nga mouvement su mouvement man mm. man sama conviction personnelle la mm. on fait de la politique mm. ou on fait pas de la politique boo defee mouvement di laaj baatu askan wi tu es la politique noo mën di noo mënti tudd tu es un homme politique. Mhm. yam na ñoo xam te ni defuñu politique. Mhm. ñi nekk ci nawetaan yi nga xam te ñoom nawetaan moo leen intéressé ñoom nawetaan la ñuy def. ñi nekk di société civile yegg ci daayira yi defuñu defuñu politique. Mhm. mais boo laaj dès l' instant. que nga laaj ni bëgg naa jiite askan wi. Mhm. ci quelque soit strate boo mënti nekk. Mhm. man dama lay jàppe ni tu es un homme politique. Mhm. maintenant tu peux être un homme politique perverti. comme il y a partout. il y en a dans l'opposition. il y en pouvoir il y en a dans les euh, comme tu peux être un homme politique responsable. ba nga xamante ni li nga wax moom ngay def li nga bëggal nit ñi. mooy li nga bëggal sa bopp. d'accord kooku am na aussi dans le pouvoir am na dans l'opposition am na fépp d'accord at xam naa ne d'accord wu leen ji moom dina dina gën a argumenté mën nga jóg defa defaraale ki bi ñu ñëw ci selbe selbe yéen <laughs> seen seen baptême de feu mooy aujourd'hui euh, demagu leen nag élection quoi qu'on puisse dire yéen a ngi wax grande coalition gëm sa bopp yéen a ngi am ay adhérents tous les jours yéen a ngi def seen activité ah yéen a ngi waxtaan seen biir conférence des leaders am na xam nañ ci dara mais aujourd'hui yéen a ngi bëgg a doog a dem nag ay élections est-ce que aujourd'hui euh, lépp yemb na sur tous les plans ngir nag mën a faire face ak coalition yi ma gis nga xam ne ñoom déjà terrain bi miin nañ ko ba pare waa baax na alhamdulilah mm. euh, jërëjëf Mohamed sa question bi am na solo mm. mais laataa mooy ñëw rek ci tontu mm. dafay jaadu bu fekkee ne sa kër dafa commencé di am problème beneen borom kër jóge fële ne tey ji ma sonnal leen mhm. am ñoo xam ne dañoo taxaw pour massawu la mhm. buñ toogee ba massawu la dafay jaadu nga ne leen jaajëf mhm. ndax lii euh, soxna Nafisatu def ak lii euh, docteur def dafa rafet gisuma nag waa Benno Bokk Yaakaar def ko waaye waroon na ko mën a def ndax Sen TV tele askan wi la <laughs> des médias mbirub askan wi la. kon ma àggale rek. <laughs> as mbir li nga xam ne mbirub askan wi la. bu laalee askan wi. Mhm. foog naa ne képp koo xamante ni am nga baat ci askan wi war nga cee ci sab kàddu. Mhm. ndax foog naa ne liy yëngu ci des médias boobu ba léegi soxlawul ñu lay tegal kayit mhm. di la wax. ma ciy am rek lu ma ciy apporté bu fekkee ne ñaari nit dañuy xuloo kenn ki ne ma yaa ma yoreel man ma génn sama këyit leeral ne yorelu ma la dara. waaye foog naa ne keneen ka taxaw ne yaa ma yoral war naa génn këyit ne yoral nga ma kon ñun dañuy sant yàlla di leen jaajëfal ci loolu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax ndax foog naa ne lii nga xamante ni ki jiite suñu coalition muy la grande coalition gëm sa bopp di président Bougane Gueye Dany foog naa ne li muy génne dafa leer li muy wax it dafa leer boobu ba léegi nag ñi ngi xaar le président Macky Sall ak i njabootam li créé lii pour ñoom ñu génneel ñu këyit buy wane ne xam naa ne bu ñu ko déggee daañu uti këyit waaye ñi ñu génneel ñu këyit buy wane ne ñoom la ñuy wax dëggu na. Hmm. foofu it ma am na benn précision bu ma fiy def. Hmm. di ci wax ak askan waa Sénégal di leen wax ne. Hmm. différence su président Bougane Gueye Dany ak différence su président Macky Sall lii la. président Bougane Gueye Dany tubaab fa kàll macha allah dafa yor mbiru boppam. ubbi entreprise boppam. kon buñ ko ca fekkee bëgg koo nasaxal. loolu day doy waar askan Sénégal ñoo war a jóg. bu ma ñëwee ci président Macky Sall président Macky Sall dafa yor mbiru boppam. muy APR. APR moom la président Macky sàll jiite. Hmm. waaye ñu dénk ko loo xam ne askan waa Sénégal yépp a ko moom. Hmm. te président Macky sàll moom ci boppam lii nga xamante ni muy fulla ak fayda bi président Bougane Gueye dañuy def. Hmm. ba ñëw di wane ay këyit moom ñi ngi koy xaar ci moomee moom mi nga xam ne moo jiite APR. mu ñëw won ñu ay këyit siège APR. nan la ñu def ba tabax ko. Mhm. ndax ña ngay fay seeni fiscalité soxla nañu président Macky Sall woon ñu ay kayit yu leer nañ mhm. oto ya nga xamante ne ñu ngi ko jël gaare ko ci biir siège yu APR. Mhm. ndax seeni fiscalité fay nañ ko soxla nañu président Macky Sall indi ñu kayit yu leer nañ ni ko président Bougane gee defee. ba ñëw ba wane ne des amalul dara état wu Sénégal. kon yu mel noonu dafay baax. ma jox nag askan waa Sénégal ñu mën a xeex xeex hmm. boobu mën a taxaw jox a jàkkaarloog président Macky Sall te xam ko xamal ko ne ko kii doomi Sénégal la li muy am Sénégal la ko amee hmm. li muy bàyyi Sénégal la koy bàyyi hmm. employé ay doomi Sénégal jëlul japonais jëlul keneen japonais bu fi ñëw xëy na dafay ñëw pour jàngal ñeneen ñi wala ñeneen ñi jàngal ko mu ñibbi dëkkam kon ndax xam ne dafa war a jàppale kii nga xam ne moom mooy le président Bougane Gueye Dany ndax njaboot gi mu yor di leen fay te moom mënuma comprendre nga ne dangay xeex chômage. Mhm. dangay jàppale ndaw ñi. ba pare mu bëgg jël ndaw yi nga xamante ñoo nekk biir Sen TV nekk mhm. groupe de médias bëgg leen a yóbbu ñu dem nekk ay chômeurs. Mhm. ndax kon Sénégal dafa am. Sénégal des médias boo xam ne dañoo war a chômer wala ndax Sénégal bi nga xam ne dañoo far ci mag Sall dañoo war a liggéey kon loolu dafa doon baax ma leeral ko teg ko mhm. beneen bi nga wax mooy ah, balaa ngay jàll rek xanaa juste que ne euh, euh, Sen TV wala des médias en quelque ñun on fait pas de la politique gëm sa bopp bi nga représenté ça n'a rien à ak le mhm. groupe de presse des média li koy findeel mooy ñun on est indépendant ku ñu buggoon dugal it ci mouvement gëm sa bopp da ngay sonn ndax ñun on ne fait pas de la politique ñun presse ak média lañuy ñuy lijjante responsabilité donc du coup ñu bañ a jaxase rek souvent euh, ñaari yëf yi bokkul muy le président Bougane gay Dany mi yor coalition gëm sa bopp nga xam bu ñuy dajeeg la ñuy waxtaan ñun duñ ko yëg ak suñu yoon nekk ci ak le groupe de presse bi nga xam ne benn support bi ñuy waxee tey muy Sen TV Bougane moom ko man moom ma ko Sen TV la askan wi ñoo ko moom ñu bàyyi la nga yeggale ci beneen foofu li ma la fay dolli mhm. balaa may dugg ci point bi mhm. mooy ñun ñi ñëpp ay citoyen lañu mhm. dañuy seetaan seen TV dañuy seetaan yeneen télé yi. Mhm. mais booy seetaan seen TV ba revue de revue de ñëw. Mhm. mais li ñuy taggee yeneen coalition yi géré wuñu ko gëm sa bopp. tout à fait c'est clair. géré wuñ ko gëm sa bopp. Mhm. di nga gis ñu jël tey ji kenn ci benn coalition. tagg taggal leen seeni maam wax leen lu baax mais bu ñu ñëwee ba nga xam ne titre bi nga xam ne pour gëm sa bopp la dañ koy soofantal <laughs> kon nga xam ne kon démocratie mi ngi fi kon kooku tey ji bu ñu ñëwee waxuma la sax ay mbirub local ak mhm. législative mais bu ñu a mhm. xam nga ñun d'autant plus que bu ñu xamee ne ay novice ngeen nag ay bleu ngeen ci ci ci terrain ñoom novice <laughs> <laughs> comme ni ma tàmm di wax mhm. bi nga xamante ni ci mbirub business ak homme d'affaires la. Mhm. mais yàlla du ko jox tamit ñoo xamante ni dañuy politique du ñu ay cuune. mooy ñu mu àndal juste mooy ñi mu àndal nous mhm. sommes des acteurs politiques. c'est clair. Mhm. te wax dëgg neex yàlla. dafa am foo xamante ni tubaab fa kàll macha allah ñun dañ fa jaar. amit ay nit ñu baax. ay mag ñu baax ñoo xamante ni. dañoo ŋànk li nga xam ne aussi mi ngi ci biir gëm sa bopp. ndax soo jëlee ku ci mel ni tey ay ñoom tonton Kalidor ak ñeneen ñu baax ñi nga xam ne muy équipe bi. nga xamante ni ñoom tamit ñi ngi xool fan la ñuy jubbalee xale yi fan la ñuy jaaree xale ndax xam nañu. ñan lañ ko séqal. xam nañu ñan la ñuy jàkkaarloo. mais comme li président Bougane Gueye di wax rek. lenn moo ko ñor. lenn moo ko saf. lenn moom la gëm muy opposition na gagné. xam nga ki nga xamante ni day fàtte say boppam seetluwul ndax kii wallu la seetluwul ndax kii yeewi la moom li muy gëm mooy opposition bi ci boppam nañu am force. Mhm. opposition bi ci boppam nañu am doole. Mhm. kon encore une fois de plus. ñun de ñun la grande coalition gëm tàllal nañ ñëpp loxo. Mhm. ndax nag fu ñuy jëm booy dem fenn di séentu naan ndax na yomb ak du yomb bu yeboo nga toog. j'ai l'habitude de le dire. fi ñuy jëm xam nañ ne day metti xam nañ ne du yomb waaye ak suñu philosophie bi nga xam ne ñun moom la ñuy demee. gëm sa bopp bi nga bi nga xam ne moom la ñuy demee. jaaykatu gerte caaf bi maçon bi pêcheur bi. Euh, béykat bi mhm. ka nga xamante ni sax ma nga toog ca bopp koñ bi bu guddee muy garde koñ bi mhm. ñooñu ñëpp mooy gëm sa bopp dañ leen a soxla tàll nañ ñëpp loxo nañ ñëw fekk suñu ñu mën a liggéey mën na nag wàññi tuuti doole PDS mën a wàññi tuuti yeneen <laughs> doole est-ce dina yomb ñu daal day avancé macha <laughs> euh, waaw waa Benno Bokk Yaakaar en tout cas opposition bi waaw ñu ñu ñu ñëw ci docteur en tout cas opposition bi sénégalais yëpp vraiment ak émission bu mënti doon télé bu mënti doon ñoom li ñu bëgg mooy gis gis ab opposition boobu ànd euh, doon benn ngir mën a faire face nag à Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar quand même euh, ni ko gars yi di waxee moom du ñoom du ñu ñeeku ñebe kenn donc ñoom euh, taxaw taxaw na nu alors <laughs> docteur yow gaa ñi dafa mel ni d'accord ñu ci comme quoi mouvement citoyen am na nañu rôle bu mag a mag bi ñu joué entre temps mm. que ne les politiques en quelque sorte dañu échoué alors euh, naka nga jàngatee réaction ak euh, Nafi ak euh, Bathie par rapport ak discours boobu. Ah, jërëjëf Mohamed xam nga man defuma un mauvais procès au politique franchement. <laughs> y a des c'est pas personnel. Mm-hmm. Mm-hmm. y a des hommes yoo xam ne vraiment ñi ngi def seen liggéey. ci askan bi askan bi bu ñu soxlaa ci ñoom la ñuy dem. mais la plupart ñi may wax man c'est par rapport ak gox bi ma dëkk man Thiès laa dëkk. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu jox leen ay ndombatànk ñu nekk ay maire. defuñu seen liggéey. parce que man il arrive plusieurs fois ay nit ñëw di ma solliciter wala samay naataango ñoo xam ni presque c'est des maires mën nañu leen wooye ay maire ambulance mm-hmm. ñoom la ñuy solliciter pour des choses yoo xam ne maire yi ñoom ñoo ko war a def mm-hmm. loolu laay wax prérogative la en fait loolu laay wax noonu te ñooñu nekkuñu ci benn parti politique ñooñu nag population bi ñoo dem ba ne ñun dañoo bëgg yéen ñi ngeen laaj baatu askan bi ñu jox leen ko population bi ñoom ñoo leen ci obligé comme sama genre bi mais ñooñu c'est pas des gens yoo xam dañu jóg ni ñun dañoo bëgg a laaj baatu askan population bi ñoom ñoo ko imposé parce que bu ñu amee jafe-jafe bu ñu amee ordonnance bu ñu amee bu ñu bu ñu amee ay problème ci koñ bi ci ñooñ lañuy dem du ñu gis la maire pas plus tard que yàggul man sama koñ sama devant sama siège am na benn garab bu mag bu fa daanu ci ngelaw lu loolu deux jours ñu ngi woo la maire mu tëj portable am ñëw fa il a fallu waa koñ bi mobiliser wu defar ko pour bouger loo garab yi xam nga loolu dafa metti woon hmm. il a fallu man ñu woo ma man ma nekk Dakar fii pour mën a def ay action génne sax sama poche pour ñu mën a dégager fa garab yi hmm. donc à quoi joue yi daal balaa nga leen di dégg ci problème hmm. foncier nga leen di dégg élection nga leen dégg ba élection man dama jàpp ni bu ñu la falee danga war a nekk derrière askan bi maanaam askan bi ñoo war a nekk sa kanam nga bu ñu faqasaloo nga xam ni askan bi dañoo faqasalu bu ñu feebaree nga xam ni dañoo feebaru bu ñu amee jafe-jafe nga xam ko loolu la mooy mais falu ba pare nekk ci kanamu askan bi doo leen gis kañ nga leen di gis rek bu élection jotee nga gertu ne ana askan bi ñu ne ñu ngi ni loolu nag lañuy bañ loolu la ñu bëgg loolu ñu bëgg mu jeex fi fi toll nii léegi dañoo bëgg askan bi lay fal nga respecté leen jox leen cër te lool dina changé ah man loolu y aura beaucoup de surprise parce que mode d'élection bi dina changé xam nga léegi yaa ngi wax ni euh, Nafisatou que ni dañu investir benn waaye boo xam ne il est du mouvement obligé yéen parti politique yi investir koo xam ni gox bi bëgg nañ ko sinon du ngeen gañ. ah élection locale looloo koy gañ nag. dama vous êtes obligé ci gox goxaat non eh. yàgg na def loolu yàgg bokkul. Ah. bokkul xam nga PDS xam nga bu njëkk parti politique yi. Hmm. dañuy dañuy dem élection. Hmm. am conseil municipal. Hmm. président parti bi moo naan fal leen fa kii. la preuve non ah, gis naa ko ci parti yi bëri. la preuve mooy maire bi ñuy fal. mais day def lu ko neex parce que population bi faluñu ko directement suffrage mm. indirect la parce que moom day neex chefu parti bi rek mu ne kii lañ fay fal dal nañu ñun Thiès mm. léegi nag du loolu yéen parti politique yi bu ngeen jëlee nit koo xam ne askan bi gisuñu seen bopp ci moom musul defal dara askan bi ngeen teg ko tête de liste mm. duñ ko voter vous perdez même bu fekkee yéen vous êtes au pouvoir loolu laa bëgg a wax mën na leen ngeen bàyyi xel ni mode de ko kooku nag bu nekkee tëdd liste ñu gis photo am nii kooku la ko kooku d'accord léegi léegi ñu ngi may wax euh, ne waxtu bi jeex na mais. na fi am na am na am na am na loo bëgg a dolli. par rapport ak li mu hmm. wax mat ma yokkal la ci beneen laaj bi nga xam tour de table ngeen baal ma ko waa régie moom la ñuy tëjee muy actualité ñu gis ay violence ñuy nemmeeku ci gox-goxaat yi te xam ne ñu ngi dem élection est-ce que dina doon quand même euh, acti est-ce que est-ce que nekkul tiitange euh, ci bu xamee ne intimidation yenn parti yi di songu ay ay acteurs politiques ci yenn gox yi est-ce que li li liy xeeñ neex na comme on dit euh, ci élection yu ñu jëm est ce que du am jeexital par rapport ak. Euh, fi ñu jëm waaw baal ma rek ma wax ci benn 30 secondes. gis nga ñun PDS en général. Mm-hmm. en général toutes les élections. Mm-hmm. Euh, kii kii même bi muy nekk proportionnel mm-hmm. wala. mode scrutin bu nekk kiy jiite liste bi en général c'est le responsable local hmm. ñun en général loolooy am par exemple tu vas à à, à euh, chez docteur Cherdien forcément en général hmm. parce que on est structuré on hmm. sait que le président c'est rarement mais te loolu consensus lay doon par exemple am na gox yoo xamante ni en 2014 ñi fa nekkoon mënatuñu xëy na am nañ âge jamono Ablaye Wade la ñooñu dañuy jël benn ci ci jeune wala cadre yi jiital ko mais kooku mooy nekk le maire ñun tàmm nañ ñun ñu def candidat la celui tête de liste ou pas ça change pas grand chose parce que dans la majorité des listes du PDS kiy jiite liste bi en général moom la ñu doon tànn parce que seen gox moom la ñu tànnoon ne ko yaay suñu Euh, yow la ñu gëm yow yaay jiite list bi donc bu ñu demee mairie de facto en général dañ koy dañ koy voter ñun problème boobu bëriwul en tout cas PDS c'est mm. très rare nga gis le le contraire ma bëgg wax itam sama sama sama frère bu mm. épousé woo suñu idée mais Macky Sall nag épousé na ko ah, li ah, waree li waree Sarr di wax <laughs> li waree Sarr di wax il est comptable de du du du du PDS ndax moo doon suñu premier ministre moo doon suñu ministre de euh, de de l' président assemblée euh, nationale euh, man ma waa Benno Bokk Yaakaar moom tout le monde mm. Mm. doit pouvoir nous jeter la pierre parce que nag yéen a leen meññ loolu moom bàcc moom mais dañ leen dañ leen ko doon efficace bàcc loolu moom nangu ko rek mais ce que ah. je voulais dire également sur mm. ce qu'il a expliqué sur les partis politiques c'est vrai c'est absolument vrai politicien bi mën nga bañ a politique kay politique ëpp la njëriñ te kooku pourtant laajul dara ci gox goxaanam mm. jàkka ja bu ñu soxlaa woo ko euh, ASC bu ñu soxlaa ñëw gis ko te pourtant politicien la pourtant demul laajte mm. euh, mairie c'est-à-dire yëf bi yëfu gëm-gëm la ak mm. engagement parce que euh, tey jii man ku ñëwoon awma ambition par exemple local mais ku ñëw man seet ma du xool sax man na fi en tant que kii déedéet dama naan ñu jàppale ko parce que sama rakk la ñoo bokk koñ bi. Hmm. yëfu koñ ñëpp a xamante. bien sûr. waajur yi dañuy xamante. Hmm. donc booy jàppale du loo xamante ni tu le fais systématiquement par intérêt. très bien euh, léegi. pour ñu ñëw ci euh, actualité bi euh, violence ñu gis ay acteurs politiques leader coalition yi ñuy attaqué ci ay gox-goxaat te ñu xam ne ñu ngi dem ci ay local est-ce que jotul ñu ànd ci ak solution balaa ñu ci tàbbi. ñun de tàmm nañ ko. suñu permanence bi gis nga yëpp a tojoon. Hmm. ñun tàmm nañ ñu <laughs> tàmm nañ ñu attaque waaye nag dañu dul ñeexum ñebbe ñu nekku ñu mas a attaqué <laughs> dootoo ko dolli ak dagg convoi Ablaye Wade dootoo ko dolli ci àdduna donc y a des choses yoo xamante ni dañ koy condamné violence baaxul euh, ñun taxawoon nañ fii gendarmerie bi ñuy auditionné Karim seen benn ministre yéen ànd ak ay nerf yi nee na yaay yooyu yaay PDF fu mu mujjee gendarmerie moo la woo wallu ne PDS warul taxaw di xaar Karim Wade buntu gendarmerie ànd ak ay nervi di sànni xeer maire yi toogoon responsable PDS yi waaye waa ba ko xale yi jàppee mhm. mais gendarmerie la dugg ñoo ko escorté pour génne ko mu ñibbi këram ñun duñ ko nangu y a des choses duñ ko nangu violence mhm. pouvoir amu ci intérêt mhm. pouvoir moom moo wax daw leen c'est vrai que de tous les bords amul sens provocation itam parce que du ma taxaw fii tey pour lu neex opposition bi kese provocation itam nañ ko éviter. nañ ko bàyyi parce que politique bu amee non politique bu amee les les nerfs sont sont sont son tendus. Tendu, ouais. ils sont euh, te am na ñoo xamante ni par exemple man sama koñ deux mille deux mille dix sept euh, Médina ba may dem Seydou Gueye le mm. ministre Seydou Gueye dafa taxaw ak ay militants woom xaar ma ma wàcc ak suñuy samay militants ñu nuyante photo wu reetaan parce que je passais devant je passais devant chez lui. Bien sûr. mm munoo boo amee defoon mën na am ma defoon neneen wala moom mu defee woon neneen deret dina tuuru dafa taxaw ak ay mil ñu fotowu waxtaan ma continuer mu wax lu baax ci man ma wax lu baax ci moom parce que ñoo bokk ñoo bokk dëkk mhm. euh, euh, politique bi euh, jarul bakkan jarul xeex donc dans des deux côtés nañ xam ni ñoom ñoo à la at the end of the day ñoo bokk Sénégal mm-hmm. nous ne sommes pas des malgaches nous ne sommes pas des de des des russes mm-hmm. lu mu metti metti nañ ko xeex xam nga lan mooy dëgg bi mm-hmm. nañ dugg ci kër yi. Mm. wax ak nit ñi. lan mooy neex. lama ma naan 23 janvier lu waay doon jaay. wallaay oh, <laughs> c'est clair alors Bac sur la violence xëy xëy na am nga ci euh, kàddu par rapport ak euh, yu ñu gis ay leaders yu ñuy attaqué na fi wax na ko aussi ñu moytu provocation bi mais est-ce que lii bu ñu ko teelul lijjanti comme ni ma ko waxee sànq rek ak élection yu jëm du ëpp loxo. Euh, merci beaucoup. jërëjëf loolu c'est hyper important nit ñi def ci taxaw seetlu. Euh, mais su ma jigéen bi daf ma interpellé léegi. mais comme man je dama bëgg des fois très discipliné. Mhm. bu ma ñëwee pour wax lii loolu la bu fekkoon xëy na ci beneen débat la ñuy wax dinaa ci mën a dugg. Mhm. dinaa ci wut am xam-xam. ba xam fu ma ci mën a taxaw. Mhm. mais comme moom ma ci xam-xam en tout cas ce que je sais. mooy Sénégal en fin de compte comme ni mu wax bu ñu toogee ba euh, bis bi jeex. ba ñëpp dugg. diw bokk naa ak diw wala bokk naa ko bokk ak diw wala bokk naa ko bokk ak diw. absolument en fin de compte ñun ñëpp ñoo ko bokk. li Serigne Cheikh Tidiane Sy Al doon wax la seule idéologie qui vaille c'est celle d'être sénégalais pour ñun. loolu bu wee loolu weesoo violence. je pense que débat yu mel ni violence il faut que ñu jël ko avec beaucoup de sérieux de rigueur. Mm. parce que violence bi commencé wul ci yëkkati yet. jël jaasi dóorante violence mu ngi commencé ci kaddu mm-hmm. kaddu yi discours yi nga xam ne discours yi des discours violents mm-hmm. pense que loolu la war njëkk a régler mm-hmm. les réseaux sociaux c'est nit ku la neex saaga ku la neex wax lu ko neex alors boo génnee avec ce sentiment là que je suis fort derrière un clavier nga génn avec ce sentiment là ñu gonfle la tu es capable de faire des choses qui sont idiotes malheureusement loolu moom Sénégal mais violence fu mu mënti jógee baaxul ku ko mënti def baaxul maintenant il faut que ñu bañ ko jël nii rek nii way parce qu'on est avec Mohamed aujourd'hui mhm. attaqué nañu Mohamed mhm. donc euh, non c'est bon euh, Mohamed waruñu ko attaqué mhm. suba ñu attaqué Nafik ñu ne elle le mérite ah, ah c'est pas bien ça parce que euh, oui parce que bi élection bi bi mars très rapidement violence yi amee au mois de mars y a des citoyens yu ñuy làkk seen alal fan la ñu bokk xamuñu. bu lee boo ñu bokk APR bu lee boo ñu bokk Benno Bokk Yaakaar bu lee ñu bokk fii mais seen alal la. Mhm. donc amuñu pour lakk ko. Mhm. léegi nag homme politique li ñu war a def mooy bu violence boobu amee ñu lakk kër maître El Hadj Diouf ñu ne c'est pas bien. Mhm. bu boobaa bu ñu ñëwee laal oto Mohamed. boo ne c'est pas bien ñu xam ni kii li muy wax c'est objectif. mais bu violence amee benn côté bi nga gëmm. bu bonee amee beneen côté bi chacun fait une déclaration c'est pas en moo mot comme en mille mots. Mhm. violence fu mu mënti jóge baaxul. war nañ ko moytu. war nañ ko moytu alors euh, Selbé gis nañu ne euh, li daal le euh, leader de PASTEF foofu fële ca Ziguinchor seen leader yéen ñaawlu na ko ba noppi masawu na ko mais justement violence boobu est-ce que du yóbbu ci sénégalais yi seen xel bañ a dal ci échéance yu ñu jëm te xam ne kat ni ko na fi waxee le 23 moom bu ñu ci yeggee dinañ xam kan mooy kan ak kan mooy def lan waaye entre temps mbir mi est-ce que du. du am ay jafe-jafe. waaw euh, Mouhamed. Mhm. Seydina Limam alayhi salaatu salaam. Mhm. dafa am lu mu jàngal njabootam. Mhm. jaarale ko ci taawam bu baax bi muy maam Seydi Rasulullahi mu ne nit bu la ñëwee fekk la nga yor sax sa kurus ak laayeen ni mu fonkee kurus. ngay wér ci sa kurus. mu ñëw fekk la yàgg sa kurus jël kurus bi dagg ko. wan ko gannaaw nga dem bu fa sax nekk di for. ndax maanaam boo nekkee di for di nga am xëy lu xaw a naqari sa xol nga jóg defante. kon xam nga ne kooku jàmm lay woote. jàmm joojee nag ñun moom la ñuy ñaan ci senegal mais laataa muy ñëw dafa am loo xamante ni gis nga violence yi dafa am lu ko jiitu. ndax bu fekkee ne yow yàlla dala dénk réew mi nga nekk njiitu réew. njiitu réew du du du caaxaan. yow ci sa bopp yaa war a njëkk saytu ak uutab jàmm ci réew mii muy Sénégal. ñi ngi naan ay ci internet yeeg boo ci duggee ci réseau yi mais non violence bi dafa njëkk a nekk violence verbale kaddu gi nga xamante ni tamit moom la yenn saay président di génne. mais fañuy fañ fañ wàcc caa genre làmb yooyu genre kii yooyu mais il faut arrêter. Ah, ah, ah, il faut arrêter c'est trop violent. ay mag ay ma ñëw Mohamed ay mag galgal ko daaneel ko. dafa am yenn kaddu yoo xamante nee naa leen président Macky Sall bi muy faloo ba léegi keroog ba problème mu marché yi amee la ñuy soog a dégg ci président Macky Sall mu ne fanaan leen ak jàmm. Mm-hmm. la grande coalition gëm sa bopp. jàmm ngeen di woote jàmm la ñu ma ñëw. jàmm la ñuy woote. Mhm. jàmm ak salaam mais aussi. Mhm. dafa am loo xamante ni dama tàmm di ko yépp ci ñaari côté yi la. Mhm. pouvoir comme opposition. pouvoir dañuy doxal violence ñun le président Bougane Gueye dugg na Fouta. mais ñëpp Sénégal yëpp gis nañ li ko li ko fa dal. mais am na ci ñoo xamante ni ci biir opposition dañ doon wax naan Bougane moo ko créé boppam. au lieu ñu génn ñaawlu ko. au sein de l'opposition au sein de l'opposition. d'accord dañ ko waroon a génn ñaawlu. tey jii ci biir opposition bi xam bi nga xam avant may dem sax opposition encore une fois de plus parti au pouvoir. tey jii li ñuy dund tey lan la mbiru passeport yi. mbiru faux billets yi. lépp ci parti au pouvoir. ñu jëlaat yeneen doomi Sénégal ne leen ràpp ci kaso bi ndax bokkuñu parti au pouvoir loolu du violence. loolu du violence kon dafa am loo xamante ni bu fekkee ne yàlla dala dimbale jiite la nga nekk ma ñëw Mouhamed waaw yow kay lañuy xaar nga daan waxtu bi a dépassé même le temps ah. ba nga jiite am réew hmm. Macky sàll li mu war a xam dafa war a xam ne nekkul président APR nekkul président Benno Bokk Yaakaar c'est le président de tous les Sénégalais ah, kon violence bi ñu ngi koy ñaawlu di wax aussi beneen wàll bi muy Ousmane Sonko hmm. na gën a waxtaan ak njabootam ndax moom it day xëcc pour jëli réew comme ni la grande coalition le président Bougane Gueye di jëli pour xëcc ji réew mi mhm. munoo bëgg a dem xëcc réew ba pare tamit di woote violence mhm. violence nag ñëpp ràññee nañ ko ci côté Macky sàll mhm. waaye ñi ngi koy avertir moom président Macky Sall na wax ak njabootam na arrêté njabootam te xam ne Sénégal gii jàmm moo fi am. moo fi njëkk moo fi mujj. ci kàttan suñu borom. loolu leer na Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. Ah, di nuyu nag di di ah, nuyu di fi may tëjee rek di nuyoo. Ah, fu ma jógee muy waa Sicap. waaw waa Sicap Liberté ñu ngi leen di nuyu. ñu bàyyi ñu bàyyi docteur waaye aussi di wax waa Dakar. di wax waa Dakar la ville de Dakar. nañu xool bu baax fi ñuy sànni seen carte muy opposition muy pouvoir ndax tey jii mën nañu tànn pouvoir pouvoir baaxul ci oppo ci ci ville de Dakar. Mhm. comme mën nañu tànn opposition. opposition bi baaxul ci ville de Dakar a wax ci violence ci état président Ablaye Wade ànd naa caravane bu boobu il était président de la République. Mhm. romb fenn ñu sànni ko xeer. Mhm. retour ñuy ñibbisi dàqe nañ ba jàpp ñenn ñuy ñibbisi gars yi ne ko par force dangay awaat. fii mm. ñu jàpp leen defante ñi ngi président Wade ne aw ma ni aw leen wari leen mu ne ndax dama ame doole nguur sama mer xajul ci benn citoyen donc bugguma mu ne parce que bu ma awee nii mm-hmm. ñu def defaat ko sama xol mën naa jóg ma def sanction yoo xam bàyyi leen ma wëri donc président Macky ci loolu lañ alors on termine avec le président s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on termine avec avec le président Macky Sall en politique quand on termine avec docteur on doit être meilleur c'est bon heure bi jot na docteur alors on termine avec vous violence sa xalaat ci euh, violence yu ñu nemmeeku ah ay leaders yi ñuy yu ñuy attaqué te ñu ngi jëm ci ay échéance est-ce que jarul ñu def ci ak taxaw seetlu balaa ñu yegg ci loolu. violence bi am euh, temps yi ci réew man dama koy condamné à la jusqu'à la dernière énergie. Mm-hmm. muy ci côté nguur gi muy ci côté pouvoir bi. Mm-hmm. parce que comme ni mu ko waxee violence bi njëkk mooy la violence verbale parce que violence verbale bi moom mooy indi après violence physique bi. donc nañu moytu loolu. élection yu ñu jëm loolu jaru ko. Mm-hmm. ñun ñëpp kër goo dugg am na ñoo xam ne Pastef lañ nekk am na ñoo xam ne APR lañ nekk am na ñoo xam ne PDS lañ def. kër mm-hmm. goo dugg mm-hmm. donc violence boobu arrangé wul kenn je pense que élection yu ñu jëm jarul yenn yi nañu wàcce dënn yi euh, apaiser les choses. pour que ñu mën a def élection yi ci jàmm quoi di woo tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk sama coalition la coalition citoyenne bi nga xam ne ñoo nekk Thiès di leen wax ni nañu laxasaayu préparé wu pour élection yi ñu jëm parce que ñun jàpp nañu ñun ña nga xam ne ñoo jàkkarlook ñun ñun ñoo leen ëpp doole foofu. Mhm. te dinañ leen battre au soir du 22 janvier 2022. <laughs> jërëjëf docteur alors vraiment maa ngi leen di remercier euh, ci disponibilité bi ndax euh, bañ leen contacter wane ne wane ngeen seenu euh, ko ànd ak vraiment bokk ak ñun jotaay bi ngir càmbar waxtaanee réew mi ak surtout actualité surtout élection yu ñu jëm ak jafe-jafe am ci coalition yi wàllu investiture mbokk yi ñuy fàttali ne 90 minutes chrono ñu ngi doon am mbégte doon dalal Nafissatou Diallo bokk ci membre bu coalition wàllu Sénégal ñu ràññee lool également ci parti démocratique sénégalais à travers yow ñuy nuyu ak gërëm bu baax a baax Mayoro moom itam euh, ci disponibilité bi gërëm bu baax a baax également Bathie Ciss moom ni mu ko waxee sànq premier adjoint la maire bu Thiénaba di secrétaire général euh, ASAPEX il faut le rappeler bokk ci AFP waaye itam membre bu coalition Benno Bokk Yaakaar naka noonu itam Selbé Linguère Diouf moom bokk ci membre de la grande coalition euh, Gëm sa bopp moom itam kenn dootu ko présenté ndax miin nañu ko lool moom mi nga xam ne mooy président bu euh, mouvement euh, alliance pour une nouvelle direction ak seen coalition bu yees boobee ñu bëgg a taxawal lépp rek ëmb mouvement citoyen yi mbokk yi seen émission 90 minutes chrono euh, lii la woon amoon mbégte lool doon leen ko présenté di leen jox dig daje incha allah beneen jeudi yeneen di gan beneen tam jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mbooleem njanaaw yi kenn ku nekk waxtaane nga ko juddoom googule doomu aadama yi waxtaane nañu juddoom googule ba tax na réew mii di Sénégal waaye rawatina télévision bii nga xamante ni mooy seen TV. mbokk jullit yi seen TV seen àndandoo ci xew-xew yu mag yi ñoo leen di ndokkeel ci gàmm gi ak seen TV nawoon fawoon incha dara du leen ump ci gàmm gi ci mbooleem këru diine yi ci biir réew mi ak ay reporter ci fépp fu ñuy màggalee bésub Seydina Mohamed salallahu alayhi wa sallam ci biir loolu ñoo ngi wax mbooleem koo xamante ni rek euh, bëgg nga li nga yor daal di siiw moo xam njaay la ak bu mënti doon nga daal di ko jàllale ci loolu la nga xamante ni mooy ki yonent bi salallahu alayhi wa sallam gaawantu leen jokkoo ak service commercial bu Sen TV ci 77 610 44 44 mbokk yi ñu ngi dëgmal guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Sen TV moo leen di ñaanal gàmmug jàmm. auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokku jullit yi mbokku téléspectateur yu Sen TV yéen ñi ànd ak ñun ci biir réew mi ak bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw ba nu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balwaq di leen baalaq di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di sant bu baax tey ñaanal sunu kilifa diine yi di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu sàmmal ñu leen te aar leen yàggal leen ci sunu kanam lu yàgg lool yaakaar naa ne buñ ci tuddee sëriñ Mountakha Bachir xalif général de Mourides tudd ci sëriñ Mbaye Sy Mansour tudd ci Cheikh Mahi Ibrahima ñas mel na ni rek tudd nañu mboolem xalif généraux yi nekk ci biir réew mi ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp ci bés bii nu dëgmal di ganek àddina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu-sang yi delluwaat di leen balu àq di leen ndokkeel ci bés bi di ñaan yàlla ni nu ko fekkee ren mu bàyyi ñu fii ba naga ni déwén ba ñu fekkewaat ko ni nu ko fekkee ren mën na ko sañ na ko moom sunu borom yal na nu ko defal ci barki borom bés bi nu dëgmal di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñuy waxtaane gàmm di gën ak àddina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii ci Sénégal nag dañoo juddu rekk fekk sunu mag ju baax ñi di màggal bés bi ñu nàmpatal ñu ci it ba tey ji bu bés bi dëgmalee ñu koy waxtaane bu bés bi ñëwee ñu tàntal fu nekk rasulullahi sallallahu alayhi wa di màggal bés bi nga xam ne nii ci la leer euh, lalu ci àdduna bi yépp wërngal këpp tey nag ci émission waajtaayu gàmmu ñuy waxtaane kenn ci mag ñu baax ñi nga xam dan nañu dundal bés bi muy borom faydu bi cheikh al islaam maulana cheikh ibrahima ñas yal na nu ko yàlla fayal yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk ay ngëneelam yal na nu sunu borom taaf ci barkeem euh, ñu fas yéene waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañu ñu dalal tey ci plateau bi Serigne Alioune Faye ci wàllu waxtaan wi ak euh, sama doom di soxna Aïda Faye moom Cheikh islaam di leen nuyu di leen tatagal di leen dalal jàmm di nuyu it mbooloo mi nga xam ne nii ñoom lañu àndal muy awukat yi ak ñi nga xam ne nii ñoo ñëw gunge si Serigne Alioune mi jiite waxtaan wi euh, ci studio bi di seq waxtaan wi ak sama doomu bopp Mohamed Mbaye ñu fa yéene waxtaane cheikh islaam ak gàmm nu bàyyi daan gàmmoo lu bàyyi bind ci gàmmu maanaam ku màggal bés bi yool bi nga ciy jële waaye lu cheikh islaam bind ci soppeem ba seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ponk bu nekk nag xam naa dañ ciy boros rek ndax bu ñu ne lu cheikh al bind ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam waxtaan la woo xam ne nii xejul sax ci benn émission waxuma la euh, ci ab jotaay boo xam ne nii temps bi dafa limité waaye ñu jéem cee waxtaan suñu kémtalaay kàttan euh, ba ñun ñëpp ñu mën a jariñu ci dund gu barkeel ak liggéey bu rëy bi nga xam ne nii ki nuy waxtaane tey ak euh, bés bii du dëgmal muy cheikh islaam Euh, def na ko ci biir réew mi yal na nu ko yàlla fayal yal na nu ko yàlla fayal yal nu ko yàlla fayal ñu seq waxtaan wi kon ak euh, sama doom Mohamed mbay bala ñoo ñëw ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo ak euh, mbokku téléspectateurs yi mbokku jullit yi doom sama tafa dal aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi allazi manaarati dunia bi talaati xayri lbariya sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam saaxibi naasiri lxaqi bilxaqi talaati lxaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin walxaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bixaqihi wa ala alihi wa saxbihi wa man tabica alhuda bi hadiyin ila yawmi ddin law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rimami sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia alhuda bi hadiyin ila yawmi ddin ñoo ngi sant yàlla mi nu may ñu dugg ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne atam ma mbégte la weeram wa mbégte la bisam ba mbégte la wa aamun thumma shahrun summa yawmun ata fihi lhuda xarnul xuruuni sururun fii sururin fii sururin wa iidun duna ayaadin uyuuni moo waral guddi yi moo waral bëccëg julli ci moom ñaan yàlla yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ba yowmal xiyaam di nuyu ñu sama baay nuyu ñëpp ndax waxtu waa ngay dem bu dooy doyloo nuyam nuyu nañu mboolem xalifa généro yi comme ni ko sama baay Abdoulahi Lam waxee léegi mu daal di rafet lool nuyu ko ñaanal ko yàlla mu guddal fanam nga nuyu gunge ñu topp sa ginnaaw ba at yi di dem di dem di dem at yu bare bare bare bare ci sunu maam ju baax jooju nga yaakaar sunu maam sëñ Abdou Khadir waaye di nuyu di ziar bu baax sunu bàyyi Alioune ñaanal ko yàlla yàlla yokk leeru dënnam ci salaatul faatihi mu nekk baay bu baax baay bu nuy tiitaroo baay boo xamante ni tabaarakallahu ñu mel ni ñoom bu nu baree ci yoonu maam Baye Niass euh, ñu bari dañu gindee ko ci ñaari anam yëpp nag ñoom ñiy seetaan xam nañu dina dinañu gindeeku ci wàllu maarifa dinañ gindeeku ci wàllu xam-xam yàlla na yàlla guddal sa fan nuyu yaay booy ndax ñun ñëpp yaay booy la ñuy wax soxna Ayda euh, nuyu ko ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko papa bu nit di dox ci yoon dajee ku ko may oto bëgg na laa noppal mhm. mu joxoon ma kurus gu rafet rafet rafet ndeysaan dama ko koy faral di wax ni ko sama kurus ga Cees dañ ko sàcce waaye ñaan naa ñaan goo xam ni itam fees na sama xol lool <laughs> papa di nuyu ñaar rek ñoo xamante ne bu weer wi jotee dañuy tàqalikook seen sago ku mel ni sunu yaay jaaga bu papa coon sekk mhm. ndeysaan weer mu ngi nii di wa sallam buñ day tàqalikook sagom bëgg ko lool bëgg ci moom lool ku ni Balla Gaye ma ba France di ñu seetaan moom itam Balla Gaye mel na bëre euh, bu waxtu wi jotee moom itam day tàqalikook sagoom yonent bi rek lay bëgg ñu koy waxtaane di nuyu di daanelee ci Serigne Mamour Issa Diop nit bu la soppee ba mu jeex wan ko ko ba mu jeex yaakaar naa solo bi xaw naa nduroog soloom waaw waaw waaw ma ma ma asa xattu fi siba damay wax ne musta def yi fi ndaw ni mu nekkee tout tànk ba ni mu tollee nii ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko yàlla na ko maam Baye ñas tiitoro sunu soppee la sunu lépp la papa nuyo baa ngi noonu ñu daal di la ko delloo. Euh, jërëjëf euh, Mohamed xanaa di nuyu di ndokkeel di ñaanal sunu président directeur général El Hadj Bougane yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla dëgëral yal na yàlla motale yéeneem ci réew mi yal na ko ci sunu borom subhaanahu wa defal lu kawe njortam yal na ko yàlla sàmm bàyyi ko ak njabootam muy ay soxnaam ak i doomam waaye bàyyi ko itam ak ñi ko yàlla booleel ci wàllu liggéey bi mu ñun ñi nga xam ne nii ñoo bootu ci kaw ñu ngi koy ñaanal bu baax la may wax toujours rek bu ma ko tuddee na ko réew mi bàyyi xel te ñëpp war nañ ko ñaanal ndax euh, ndaw mooy doon mag ëllëg te day ndaw loo xam ne nii yéeneem ci réew mi yéeneem ci askan wi foo ko natt rek wees na ko ab jullit nag amul lu dul ñaan kon saay bala ñoo tàmbali waxtaan wi rek dañuy tàllal loxo yi sunu borom di ko ñaan mu sàmmal ñu bugaan aaral ñu ko làqal ñu ko fu yàq yeggul sëñ Aliou asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. alhamdulilah. alqaa'il. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dalika falyafrahu. wasalaatu wasalaam. ala almabuuti rahmatan lil aalamiin. sayyidina wa mawlaana Muhammad ibn Abdillah. rasulillah صاحب الذكرى العاطرة ورضي الله تعالى عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني القائل إذا سمعتم مني كلاما فزنوه بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه والقائل أيضا تأتي فيضة على أصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا يأتي والناس في غاية ما يكونون فيه من الشدة والضيق ويكسر الفتح في هذه الفيضاء وهو أبي العباس أحمد بن محمد التجاني ورضي الله تعالى عن خليفته ووارث سره أبي إسحاق القائل الحمد لله على وصولي لفاس دار شيخنا المأمول شيخ التجاني المتناهي المولي كل البرايا ما لهم من سول برزقي مد الأولياء الجيلي فما سوى جيلي فكل جيلي فاترك مقال ذي هوى وقيل كيما ترى مناهج الوصول فلن ترى من عارف موصول إلا بسر شيخنا المقبول من زاره يفز بكل سول من كل سر وجدا وجدا محصول وزرته كوالدي wa uuli inna rajana bi jamii suuli walhamdulillahi alkarimi almuuli waaw waaw loolu de bëgg naa di ko dégg wa huwa alqutb altijani alshahir مولانا شيخ الإسلام الذي قيل في حقه قطب التجانية الشهير وتاجها وإمامها وجدوده تيجانها ذو الرتبة العليا التي تنحط عنها العارفون ولو سما عرفانها وهو مددنا وعضدنا شيخ الإسلام المحب الفاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا طلع هلال ربيع الأول هنأ نفسه بمقالة شهيرة هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هدا هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله بأفضل يوم هل أفضل مرسلين بأفضل أرض هل أفضل مرسلين بأفضل يوم فاستبان كماله والله وبعد التحية والاحترام والثناء على الله تعالى لجميع الحاضرين نحيي اولا وقبل كل شيء خليفتنا وشيخنا خليفة الفيضة الإبراهيمية ألا وهو شيخ محمد الماحي نس ونسأل الله تعالى أن يطيل عمره ونحيي ايضا الامام الاكبر الامام الشيخ تيجان السيسي ونحيي شيخنا ووسيلتنا وكيل دعد خليفة الشيخ إبراهيم هنا في دكار ألا وهو سيدي ومولاي محمد الأمين إبراهيم النياس كما نحيي أيضا ولده البار شيخ باي لمين الذي هو الذي حملنا إلى فاس في هذه الأيام القليلة الماضية وجئنا من فاس ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة سيدي ومولاي أبي إسحاق شيخ الإسلام الحاج إبراهيم بن ياس رضي الله عنه جئنا من فاس ونهنئ جميع أهل الفيضة وجميع الحاضرين هنا ما شاء الله ونحن أيضا ونعود إلى اللغة المحلية وهي الولوفية ما شاء الله بعد أداء التحية والاحترام والتقدير لصاحب هذه الدار وهو بوغان جي المجاهد الكبير آمين نيسان الحاج بوغان جي والله نيسان لا ننساه أبدا ولا ننسى أيضا أن نسلم على أبينا العميد عبد الله الأمر الصحفي الكبير الذي كنا نعرفه على الشاشات التلفزيونية لأول مرة نراه وهو شجاع أيضا وهو شجاع والله نيسان محترم مقدس ما شاء الله نيسان ونحيي أيضا مضيفنا الأستاذ الذي هو يدير الحركة هذه ويدير البرنامج ndeysaan macha allah nuxayihi wa nuhanni'uhu wa nas'alu allaha taala lahu tawfiq macha allah amiin yaa rabbi wa nuxayi aydan sadiqatana wa rafiqatana ala darb الذاكرة الكبيرة السيدة عائشة في عيدة في ونسأل الله تعالى آمين يا رب لها التوفيق آمين يا رب ونقول لها لا شلت لا فض فوك ولا شلت يديك آمين يا رب أولا شلت يداك ونحيي جميع من معنا من الذاكرين والرفاق mbokk yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne moo wax ci alquran ne waxal yow yonent sallallahu alayhi wa sallam kuy bég na bég ci ngëneelal yàlla ak yërmande yàlla loolu moo gën àdduna bi ñuy dajale wërsëg yi ñu dajale di ca bég kër yu rafet yi oto yu rafet yi ak soto yi di ci bég mu ne déedéet bég leen ci ngëneelal yàlla ak yërmande yàlla mooy kan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuy bég ci loolu mm-hmm. yàlla moo loolu kon yàlla na yàlla julli nga xam ne moom la yoon yónni mu nekk yërmande ñeel mi def yëpp te moo ko wax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent boobu nga xam ne moo juddu ci weer wii muy weeru gàmm ñuy màggal juddu gi ci àdduna bi yëpp yàlla yàlla julli ci moom amiin yàlla yàlla gërëm xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy borom faas muy abil abbas ahmad ibn muhammad tijani mi nga xam ne moo wax wax ji si jooju ma wax léegi moo wax ne ida samitu minni kalaman lazinahu bi misani shar'i fa ma waafaqa fa xuduhu wa ma xaalafa fatrukuhu su ngeen déggee ne man cheikhu tidiane maa wax lii mu ne na ngeen ko pesé ci balance sharia du ma wax mukk lu utee sharia dëgg la su dëppoog sharia mu ne jël leen su dëppoog sharia su dëppoo teg seen dégg ci shariatu mu ne teg leen mhm. waxu waxuma ko de ndax xëy na sa sa dégg moo ci nga mën ko dëppale ak sharia bi waaye mën naa am sax ko wax yow nga jàppale dëppoowut ak sharia fekk yow sa dégg moo fa àggut moo tax waxu ne waxuma ko dafa ne lu dëppoowut ak sharia nag teg leen mhm, fatrukuhu bàyyi leen mhm. Cheikh Tidiane ma wax loolu jërëjëf euh, Cheikh Aliou yal na yàlla gërëm amin amin ki nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Ahmad Tidiane yi mhm. muy kan muy mawlaana Cheikh al Islam alhaji Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy suñu mbëdët mooy suñ jokkuwaay mooy suñ tëbbuwaay mi nga xam ne moo wax wax jii ma wax léegi ba mu jógee faas comme ñun tam ñu ngi jógee faas léegi yàggut moo tax ma jàng bayti yooyu nga xam ne moom la bàyyi waxoon ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mm-hmm. yóbbu na ma faas ma ziyaare Cheikh Ahmad Tidiane dëgg la dëgg nuyu alxalifa almuhtaram mhm. suñ xalifa mhm. muy xalifa baay muy cheikh mahamadul maahi mhm. doomu cheikh alislam haaji Maam Ñas di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal te mu wér ak imaamul akbar muy imaamu masjidi cheikh alislam muy mawlaana cheikh Tidiane Cissé yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu wér waaye yàlla na eh, ñu ngi nuyu itam di ndokkeel itam suñu sëriñ suñu bunt ci baay muy ki nga xam ne moom la xalifa bi tegoon fii mu nekk xalifaam ci dakaar muy wakilu daadi di Mawlana Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Baabal Amin. Baabal Amin yàlla na ko yàlla yàggal moom itam. yàlla na ko yàlla yàggal amiin amiin gàmm gii muy jublu si. yàlla na ko yàlla dëgëral ko. ba mu jooxee ko ci anam yi gën. amiin amiin yàlla na ko yàlla def. waaye maa ngi nuyu itam bi nga ne nag bu ma yóbbu Faas muy kan muy Baye Lamine fa woo ma nuyu ko ak képp ko xam ne kii loxoom dugg na ci sama yoonu faas bi. jërëjëf euh, sëñ Aliou euh, xam naa danañ ci dellu si waat euh, dañoo bëgg ci waxtaan wi ndax waxtu wi ñu am émission bi dafa limité. Mhm. moo tax waaye yaakaar naa ne noonu nga duggee am na solo. Mhm. surtout kàllaama arab bi nga xam ne nii moom nga ubbee jotaay bi yaakaar naa ne méngoon na ak. sunu kilifa gi nga xam ne nii moom lañ ci fas waxtaane digganteem ak gàmmu ndax euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa fexe ba euh, faydu bi law ci àdduna bi te boo seetloo ñi ëpp ci taalibe yi yi nga xam ne ni euh, cheikh islam mooy seen mooy seen buntu ñu ci bari arab la ñuy làkk kon noonu nga duggee am na solo dañuy jot dellowaat kàddu gi rek sama doom Mohamed mu dalal Aïda moom Baye tabarakallahu papa nuyu na la ndeysaan nuyoo arab yu daw yaram euh, ñaanal na la itam léegi góor gi rek mu ngi wax ni miinuñu sa sa sa jotaay waaye gis na ñu sax xar kanam baax at yi passé ba fii ñu toll te itam mu nekk wax yu daw yaram ci arab ñu ngi lay ñaanal Baye Omar yàlla yàlla sàmm la papa ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, Moustapha Ndiaye nga xamante ni moom jeune transitaire la nekk cité Fadia nekk suñu xarit soxna Aida fi mu toll nii daal wéeru Maam Baye Niass la ñu nekk Baye Omar wax na ko sànq Maam Baye bu mu saana toll fii wi dugg papa mhm. lu mu saan alal daf koy joxe daan na jël yére yi naa di maye di wax xëni an ni Ibrahima laaxa xilaaluhu ma bëgg nag ñu mawlud tuuti ba Medina Baye ñëpp yëg ni ñu ngi mawlud fii ci fii ci ay seen TV doxalal ñu daal dem aouzu billahi min acheytani rajim bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin آمين من قبل تبت في زلال وفي مستودع أيش يخسف الورق ثم عبت البلاد لا بشر أنت ولا مدخة ولا علق متار تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأعلق قرق ورت نار القليل مكتتما تجول فيها فلا تطرق تنقل من سالب إلى رحم إذا مضى لم بدا تبق أتحتوى بيتك المعيمن من قندي فاليان تحتها نتق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض دعاء دعاء بنورك الأفق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نعترق اللهم إنا نسألك بجاه ممدوع عندك والمادع أن تعزم عزنا من ذلك النور والدياء وأن تهدينا إلى سبل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أعلقه أيروم مخلوقكم شمناك بعدما أشنا الله أخلاقي خلق الله واللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والقاتم لما سبقنا سر الأق بالأق والهادي إلى صراطك المستقيم عليه حق قدر متى يبدو في داجي البيم جبينه يلوح مثل مسباق دجى المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لأقم أو نكلا لمولد أخر عليه بنبوته قاتم من الله برعان يلوح ويشهد ودم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في القمش المؤذن والشد وشق له من إسماعيل يجله فذو العرش محمود وهذا محمد تعدي به النقة الأدماء مختجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم وفي أطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم inna rasulallah sayfun yustadaahu bihi muhammadun min suyufillahi maslulu wa abyada yustasqal xamaamu bi wajihi shimalul yatamais matun lil aramili yallusu bi ilulaqu min ali hashimin fahum innahum fa nihmatin wa fawadili damadatu nasara fi nabihimu waqum bima shita mat an fi waqtakimi wansub ila zatihi ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزمي فإن فضل رسول الله ليس له عدن فيعرب عنه ناتك بفمي لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا إذمه حين يدى دار الرمم لم يمتحن بما تيل قلوبه إرسل علينا فلم نرتب ولم نيم أيا الورى فعم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد saxiratan wa tukiilu tarfa min amami wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil ulumi fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim man zal zi ma saqat wa man lahul husna faqat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 نورك ولسان عجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وتراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوعيدك إنسان العين الوجود وسببي في كل موجود أين عيان خلقك المتقدم من نور ديائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتعى لا دون علمك صلاة تردك وتردع وترضى بها أنا وأن والدينا وأن وزن وأن أزواجنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سعادة من إزعم أعدم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم إذ وجاء فبجايعهم وبإذهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تنعت ربيعي بمرعتي شفيعي بمنطقي البديعي أبقي بها مؤملي تنعت ربيعي بمن أدي شفيعي بمن تقل بديعي أبقي بها مملي يا ربنا صل على خير لنا من من على على السماوات العلا بإذن ربي العلي دنيات ربيعي بمن أدي شفيعي بمن تقي بديعي أبقي بها مملي أهلا بشهر المولد شهر العلا السددي شهر نبي الأحمدي شهر ربي الأولي تنيات ربيعي بمنادي شبيعي بمنطقي البديعي أبكي محملي أرقص بي ربيعي إذ كانك ربيعي للأرض والشفيعي بكل قلب معضلي تنيات ربيعي بمنادي شبيعي بمنطقي عقيبتي أبكي يا مهملي أهلا بشعر الفرعي شعر زعاب ترحي وفقرنا والمرعي شعر نبي الأفضل يا دور ربيعي بما أدي شفيعي بمنطق الأبديعي أبكي بها مهملي فلا وسرور شعر بعيسى دادور مواشعين بين شعور متوج مكلل أن يدور بيعي بمن أتي شفيعي بمن تقنا بديعي أقبع محمد وآلعي وصحبعي وزوجي وإزبي وكل آل عبعي مع السلام الأكمل دنيا ربيعي بمناتي شفيعي بمنطقي البديع أبكي بها مملي يا يا إلهي اغفر لنازمها واسمع لقارعها ولي الذي عذر وأم بقفي لطف وخفي نوائب الدار ما فاتي الكدرة أجب دعاهم وأجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أسقى بالخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما القاتم لما سبقنا سر الحق بالحق ولا ديلا صراط المستقيم ولا آله حق قدر ومقدار العظيم noonu mawlud nañu papa Euh, ci soxna Ayda nga xamante ne tey ji mbooleem njabootu Mame Baye Niass ñëpp waaye njabootu mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xol sedd na papa mu ngi noonu ay ci ñu daan la bàyyi nag euh, suñu bàyyi Seydina Omar euh, moom met sama yaram dafa daw ndax heure bi mu mujjee léegi daf ma fàttali cheikh al islam mi ñu fas yéene waxtaanee ndeysaan ndeysaan jëmm jooju nga xam ne nii ndeysaan nii la ko daan jàppoo bu génneen bu génnaan ci tant bi bu bët set taalibe yi ñëpp ne tekk di ko déglu. noonu la daan dundalee gàmm. allah ku fonkoon bés bi. ndax mu fonkoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan waaye sëñ Aliou. xam naa sa yaram tàng na. <laughs> Euh, soxna Ayda yëngal na la. Mhm. waaye bala ñëw soobu ci waxtaan wi. Mhm. dafa am nataal bu ñu def. Mhm. muy portrait cheikh al islam Maulana cheikh Ibrahima Niass ak euh, sunu doom Papa Ma هذه سلام مني إليك Baye Niass turam dëgg di Ibrahima Niass waaye ñu gën koo xam ci cheikh al islam Maulana Ibrahima Niass moo gën a si àdduna ni ki alxames fukki fan ak juróom ci weeru rajab ci atum 1318 hijriya correspondre ak juróom-ñetti fan ci weeru novembre ci atum 1900 foofu ca Taïba Niassène di ab dëkk bu toll ci ñeent fukki kilomètre ca Kaolack Maulana cheikh Ibrahima Niass moom nag daara ngi jànge ca Taïba Niassène niki noonu ca Kossy nekk ay bërëb yu nekk ca département bu Nioro ba mi am nag ñaar fukki at ci la bind téeréem bu njëkk dippee ko Ruhul Atab gannaaw làquk kii di waajuram bu góor ci la nag nekk ci ginnaaw kii di Mohamed Niass ñu ngi ko xam ci Baye Khalifa mi nga xam ne moo nekkoon xalifa gi mu jógewoon ko loolu ba tax na ñu dénkoon ko daara yi foofu ca Taïba Niassène niki noonu tamit lépp lu jëm ci sikar yi mu amal nag atum 1937 taxawal Medina Baye comme ca Medinatul Rasul ca Makka niki ca Cham ak ay dëkk yu bëri ca Saloum ci noonu ci la nag taxawal lii di jumaa ko Medina ngir wane cofeel gu mu am ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nekk ku ñuul jiite ab julli ca mosquée bi di al azhar nekk ca Égypte kii di borom xam-xam bi di Mohamed al Ghazali sàkkoon ci moom ngir mu jiite xutba ba mu yéemu woon loolu ci moom ba tax na ma semaine ma dellu see mu sàkkuwaat ci kii di Maolana Cheikh Ibrahima Niass mu amalaat daanaka ñeent yoon sax amaloon na ko foofu ca mosquée bu al azhar nekk ca Égypte jii kii di Maolana Cheikh Ibrahima Niass daanaka fépp foo dem ci àdduna bi am na fa ay talibé buñ koy xayma toll nañ ci cent trente millions Maolana Cheikh Ibrahima Niass nag moo ngi woo ji suñu borom niki ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerum juillet ci atum 1975 ma mi am juróom-ñaar fukki at ak juróom foofu ca Londres ca Angleterre ñu denc ko ca jumaay Medina Baye mi nga xam ne moom moo ko taxawal mu bàyyi fi nag ab héritage social ak spirituel bu rëy ci Tijaniya nekkoon un panafricaniste jot naa sax dajeek kii di président égyptien bi di Gamal Abdel Nasser ngir lu jëm ci wàllum taxawaayu diine ak l'islam bokk ci chef religieux fii ci euh, Afrique de l'Ouest yàgg dajeek yenn ci ay organisation islamique internationale kii di Maolana Cheikh Ibrahima Niass bokk na sax ñu taxawal nekk tamit vice président bu ligue mondiale islamique nekk foofu ca Makka di membre académie recherche université bu Al Azhar vice président bu conférence mondiale islamique ak taxawaayam tax gannaaw égyptien bi di Nasser kii di président bu Ghana di Kwame Nkrumah seen diggante taxoon na lool tey jële ci confrérie soufi kii di Maolana Tijaniya. gars yi jërëjëf kooku mooy Cheikh al Islam yal na nu ko yàlla fayal yal na yàlla yokk leeram yal na nu yàlla taaf ci barkeem euh, soxna ay dañu di la jërëjëfat yi di ñaan yàlla yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral baat bi lii nga xam ne ni moom nga euh, taamu di ko def yàlla xiir la ci te muy lu neex yàlla yal na la ci yàlla defal lu kawe sa njort ci barke ki ñuy waxtaane tey di cheikh al islam di ziyaare bu baax nag euh, cheikh Mamour Issa Diop di jëmm jooju nga xam ne nii mooy wéyal liggéeyul cheikh al islam ci ndaw ñi ci biir àdduna bi yëpp yal na ko yàlla dëgëral moom ñëpp maase nañ ci ne c'est le marabout de la jeunesse ndax ndaw ñi nga xam ne nii ñoo yaakaaru réew mi ëllëg ñooñu lay tàggat di leen teg ci yoonu siratal mustaqim ci ndigalu njabootu cheikh islaam gi yal na ko yàlla dëgëral ñu ñëw nag ci waxtaan wi sëñ Aliou bàyyi ak gàmmu nu cheikh islaam islam daan gàmmoo alhamdulilah ñu ngi kontaan lool ci laaj bi mhm. ndax laaj bi dañ ko laaj ci place bi ñu ko war a laajee mhm. laaj ko itam ci waxtu yi ñu ko war a laajee mhm. bàyyi ak gàmm mooy bàyyi ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax arab yi dañuy wax ne man ahabba shay'an akthara min dhikrihi mhm. mu ne ku bëgg dara hmm. da ngay bëri loo koy tudd mhm. ku bëgg dara da hmm. ngay bëgg bëri loo koy fàttaliku bàyyi bëgg gi mu bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moo tax waxuma laa gàmm mais balaa gàmm ñëw weeru gàmm buy teru rek. Mhm. commencé na. Mm. gàmm. di bég ci weer wi di ndokkeel boppam ni ma ko waxee sànq ci arab mhm. bu weeru gàmmu teroo dafay wax ne hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu maa ngi ndokkeel ibrahima mhm. ñi ne tax mu ne ndax laaxa hilaaluhu weeram wi feeñ na muy ban weer hilaalu rabiin mooy weeru gàmm wi nga xam ne fii jaa muhammadun ci la yonent yàlla muhammad feeñ ci zahir mu ne hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tamma lana albushra wa amma nawaaluhu weer wi nga xam ne bi mu ñëwee ci la suñ mbégte mat may yëpp mi ngi jógee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla mooy ki nga xam ne mooy mayeeta may na yonent yonent mooy séddale may yi kon yonent may yi ci moom la jege ko mhm. li am yëpp ci mu ngi jógee ci yonent la salaat moo tax ne may yi mat na ci weeru gàmm ba mu teroo bu mhm. maa ngi ndokkee song bopp ci weer wi nga xam ne ci la yonent feeñ mhm. bés bi nga xam ne ci la feeñ ak suuf si mu feeñee ñu makkatal mukarrama ak bésum atina weer wii nag muy gàmm gi dafay alaa daw mi ndax lan altine lay tombeek te ci la yonent salaa salaam judd loolu beneen gëneel la kon bàyyi ak gàmmu bàyyi ni ko waxee sànq bu daan gàmmu dix lay tàmbali ba dix ci suba du jóg lu may rek dafa gàmm gi dafa tas mm-hmm. xam nga loolu itam karaama la mm-hmm. ku toll ni bàyyi mag mu toll ni bàyyi mhm. toog 10 ci suba mhm. ba 10 heures ci ci bëccëg mhm. du jóg ngir lan tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ci gën a yéeme mooy bàyyi buy gàmmu doo dégg mu tudd Seexu Tijaan mi sëriñam sëriñ radiyallahu taala doo dégg mu tudd nag alxaaji Abdoulaye Niass di way juram di sëriñam yàlla yonent noona lay nekkee ak kissa yoo xam ne yu tumuranke la ci yonent yàlla Muhammad sallallahu koo xam ne bëgg yonent yàlla Muhammad feeñ na ci moom mbëggeel koo xam ne yéem na moom rek mën nañoo xam ne moo fi gàmmu bés bi del siwaat mu gàmmuwaat mm, mu gàmmu ngénte gàmmu gàmmuwaat mm-hmm. day wane rek cofeel gu am ci yonent yàlla Muhammad ak kër gu mu mm-hmm. bari na xam ne dañuy gàmmu em ci mm-hmm. am na xam ne gàmmuwaat la ñuy def waaye moom dangay gàmmu ba pare gàmmuwaat bésam yëpp gàmmu la weeram yëpp gàmmu la kooku mooy bàyyi ak gàmm mhm. wax na ne képp koo xam ne kii màggal na judd yonenteelu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mel ni ku fekkee xare badar mhm. salli ala man man adam mhm. mawlidahu xaqan xurim masa jahimin muttarim bi fadli rabbil muzili wa kullu man wa kullu man jaada bi shayri mawlidi lmuxtaari ay karamatan li xayri xay fa innahu kaman wali mu ne képp koo xam ne kii ma fekkee ne fu ñu màggalee juddi yonent ci sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi mel ni koo xam ne da ngaa gaddu sa ngaanaay dem xare ji badal te yonent gaaralti ne ñëpp ñu xare ji badal ne yaram araama sa sa seen yaram araamal na sa kon gàmmu kon yoolu yoolu gàmmu daal mun nañu ko méngale ak yoolu Euh, saaba yi nga xam ñoo àndoon ak Seydina Muhammad doon xale war naa tax amu ci anam bu nekk nag mhm. xaal bu ñëw du tee war nañoo gàmm mhm. ndax lañ ciy jëlee mu ne képp koo xam ne kii yow yàlla yàlla na ko jëli ci yonent bi nga xam ne képp ku teew képp ku màggal bésam bi massa jaximin mooy laal ak sawara mhm. xaraamal nañ la ko dañ kon Baye fonk na gàmmu ba tax mu mel ci noo xam ne new na fu ko ci mel Baye euh, dañu gis ni euh, Baye euh, li li ëpp ci turam Maam Baye ñas ci biir ay wayam nga xamante ni xam xuruful hija hijaiya bi dañu gis ni Baye dafa commencé ci alif gi di way bi ba ci yaa gi ma gis ci biir way yi muy wax barhaamu xaadimahu barhaamu maadixahu lu tax barhaamu maadixahu waaw barahama xaadimuhu mooy barahama mooy ki nga xam ne mooy mbindaanu yonent yàlla Muhammad mooy bëkk néegu yonent yàlla Muhammad mm-hmm. mu ne barahama maadihuhu barahama mooy ki nga xam ne mooy tagg yonent yàlla Muhammad mm-hmm. ndax mm-hmm. li mbind yëpp taggu ci kenn tudd ci kenn lu may rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kay bu ne maadihuhu ndax lim ci yaakaar nag moo tax li mu yaakaar ci mat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu jaral ko loolu mm-hmm. wax na ne mawlana radiallahu taala anhu mm-hmm. walam arju illa anna ahmada mm-hmm. shafiun liman qaala satran fi thanaahu wa ma amil mu ne sama julli yu bëri yeeg aj yu bëri yeeg koor yeeg li ma def yëpp yaakaaruma ci tus leen rek laa ci yaakaar daa mu jot ma kaalaw sol sama co colaay yu jekk yi. sama jëmm ji. sama mm-hmm. taar bi. wallaahi ma toog rek di tagg yonent yàlla Muhammad. sallallahu laa yaakaar mais du yeneen lu ma yaakaar. wallaahi wallaahi kon kooku lim gis ci gàmmu. Mm-hmm. ak tagg yonent yàlla Muhammad. kenn mm-hmm. gisu ko ci. waaye euh, sëñ Aliou euh, ki ñu waxtaanee tey du fi jóge euh, dafa làqu rek waaye ba tey mu ngi fi ndax wax nga ko léegi guddi gàmmu ni mu ko doon màggale dafa yéeme ndax bu toogaan du jóg lu dul bët set te lépp du génn borom guddi gi muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak sunu borom subhanahu wa waaye ñu seetlu ne ba fi cheikh al islam ci zahir ba léegi mboolem xalifa yi ko fi wuutu itam na ko cheikh al islam daan defee rek noonu la ko daan defee ba ci cheikh may mii nga xam ne tey moo ko wuutu ci njaboot gi ak ci taalibe yi yal yàlla guddal fanam te wéral ko. dëgg la waaw ah, dara dem na waaye demut. demut. wa sirru. maa nuqil. mbóot mi. taxawut de. déedéet. bàyyi daraam demut lépp a ngi fi. kaset yaa ngi fi. téereem yaa ngi fi. lépp a ngi fi. Mhm. doomam yaa ngi fi. ndono lu am solo la. njabootam gaa fi. Mhm. kon al amru waadihun fala iskaala fiihi. Mhm. mbir mi dafa leer nañ amu lenn lu ci lënt. lépp luñ ci dugal lu ci bokkut dañ ko ciy dugal waaye du bàyyi. bàyyi mi ngi fi. mboot mi taxawut imam Assane Cissé. yàlla na yàlla yokk leeram. mu ngi nettali mu benn bés benn shérif dafa ñëw Madina. fekk ñuy jàng alquran di jàngale xam-xam di yar taalibe yi di julli di wasifa mu wax ne mu ne assirru maa nuqil mu ne mbot mi tuxuwut mu ko ndax lan mu ne ko ndax wilaayatu alquran ñoo ànd wilaayatu fii ak alquran jógee rek wilaay jógewu fa mm-hmm. wilaayatu ko jógee fa jógewu fa mm-hmm. te fii ñu ngi jàng alquran di ko tari di ko jàngale guddi ak bëccëg di wasifa di julli def lépp loo xam ne li yàlla mi ngi koy santaane fii kon wilaya bi toxuwut wasiru maa nuqil mboot mi toxuwut te bàyyi hmm. am na ku ta tëbb ci ay taalibe muy ma abdu ma abdu ñang hmm. ma nga dëkk Taïba Ñangeen hmm. Taïba Ñangeen waaw xam naa ku baax ah, abdu ñang eh, bam ba mu génne àdduna mhm. bàyyi seedeel na ko ne wa sirru maa nuqil mhm. mu ne mbootam moom mhm. ma Abdou Niang toxuwut waaw ndegam ma Abdou Niang bàyyi ko tëbb mbootam toxuwut waaw bàyyi mi nga xam ne moo ko tëbb bon mbootam fa lay ah, sirru maa nuqil lawoon sa bàyyi mi ngi fi mu ngi fi du fi jóg ndax doom bi al waladu sirru abiihi doom mooy mbootu baayam doom yëpp góor ak jigéen ñëpp jàngal na leen alquran bañ mokkal alquran. ma ma maam Baye da daan gàmm. jàngal leen xam-xam ba kenn koo ci gis rek mën naa nekk borom ngir. kooku daraam jóge wu. maam Baye maam Baye euh, bi mu fi nekkee wax nga ko léegi yow sama papa dafa daan gàmmu dix heures ci suba ba dix heures ci suba dellusi ñu gis ni yoon yi léegi yu bare bare bare benn daf cee rax dabe si wala mu ngi woon ndax Mame bu dellu siwaatoon léeg-léeg nga gis ay nit di way di tëgg mais dañuy askanaloo kër Mame ñas ndax loolu Mame Baye daf ko fi bàyyi woon bi muy dem wala ci ginnaawam la fi ñëwee ak loolu lan lañ ci wax waaw euh, loolu kilifa yi yàgg nañ cee wax mhm. cheikh alxalifa almarhum alxaaj abdullah mhm. wax na ci ba jógee fi mhm. Cheikh Ahmad Dame kazalika mhm. Cheikh Tidiane kazalika mhm. jaboot ak bàyyi ñoom ñëpp wax nañ ci loolu ba jógee fi ba léegi itam nag loolu mooy continuer ci ñi fi ne itam ci loolu la ñuy wax ah, li ma wax daal leer na jamono baay moom loolu amutoon jamono baay loolu amutoon waaw gannaaw baay daal la loolu am loolu nga ma laaj tontu naa la ko ayca papa doxal. Ah, jërëjëf euh, sëñ euh, ñu ñëw léegi ci taxawaayu Cheikh al Islam. ci diine ji. gis nañu ne euh, dundam yëpp daf ko jagleloon tasaare lislaam ci àdduna bi. loolu moo tax ba tey gàmmu ko Medina Baye. doon gàmm goo xam ne ni. gàmmu mondial la. àdduna yëpp ñoo fay daje. rawatina nag euh, sunu mbokk Mauritanie yi nga xam ne nii euh, Cheikh al Islam la ñuy la mhm. ak waa Nigéria. Mhm. taxawaayu Baye ci mhm. tasaare l'islam ci àdduna bi lu ñu ci félicité di ci encouragé bu baax ki nga tudd léegi. di sunu xarit ñun ñëpp. di Cheikh Mamour Issa. ndax gis nañu ne lépp loo xam ne nii Baye buggoon na ko. ci faydu bi tasaaroo ci biir àdduna bi mu ngi ci taxaw taxawaay bu mot sëkk ci tournée yi muy def. ñi muy dugal ci l'islam bi ak euh, ni mu koy defee ci ndigalu njabootuk cheikh al islam bàyyi ak faydu bi ci àdduna bi waaw bàyyi ak fayda bi ci àdduna bi bàyyi buñ koy xam fayda bi moo tax mhm. li mu indi lu tumuraaj loo xam ne kenn mësu ko indi mhm. ci façon bii nii mhm. loolu moo indi tey àdduna bi yëpp bëbbu ñëw di xenc parfum boobu noonu. Mhm. mooy xam-xam parfum xam yàlla. ndax gàmmu yàgg na Sénégal. waaye nag gàmmu goo xam ne nii adduna bi yëpp dañuy daje ci benn barab. loolu moom mi bàyyi la moo tax ma ne mhm. li ko li ko waral mooy. Mhm. mooy li bàyyi indi. mooy fayda tijaaniye boobu nga xam ne moom laa moom laa commencé di ko tudd. xam ne Cheikh Tidiane waxoon na ne jamono dina ñëw. fayda dana feeñ mooy fayda mooy loo xam ne. dafa fees bay walangaan. mooy inondation mhm. eh, ci xam-xam nag lay doon mhm. ak xam yàlla xam mhm. yàlla goo xam ne dafay fees bay tuuru di baawaan mu ne loolu dana ñëw ci sama taalu bi lay feeñ Cheikh ma wax de mu jëg jamono lay ñëw saw jant ci ndawal fanweeri at lay ñëwee bu ñëwee dana tombeek jamono ji jafe jamono ji ko bàyyi di feeñal muy mille neuf cent vingt neuf mille jamono ji jafe la mu ñëw na ko Cheikh Tidiane waxe woon melokaan ya feeñ ci moom mu xam ay taalube gànnaar ci réew awsa yi partout ñoo xam ne kenn ku nekk da ngaa mokkal alquran jàng xam-xam yëpp dajal ko door ñëw ci moom kon loo fay wut mm-hmm. xam nga duñ la ci kayit yi de mais la gannaaw kayit ya la mm-hmm. loolu mooy mooy maarifatu billahi al maarifa saxiya xam-xam bu wér ci yàlla te loolu nag téere yee ko njëkk a wax téere téere fiqu yi awalu awalu maa yajibu ala almukallifi tasxihu imanihi mhm. suma maarifatu maa yuslih bihi maa yuslih bihi farda aynihi door a ñëw sharia door a ñëw mhm. yu wéral ngëm yàlla moo war ci képp koo xam ne ki ab julit la mhm. wéral ngëm yàlla mooy xam-xam bu wér ci yàlla léegi da nga doo shariatu door a ñëw nag mooy lan muy farata farata yi jëm ahkaami salaat wa taharatu wa siyaam mhm. et cetera et cetera yooyu door a am mhm. loola nag moo indi tey mbooloo mii de mhm. mbooloo mii te nag baay bàyyi benn bu ne rek waroon naa tax mu am mu gis bu ay ndax lu ne rek nga cee raw ñëpp bu dee xam-xam alquran la bu dee hadis la bu dee xam-xam ba mu mënti doo ci xam-xam yi xegg na ci foo xam ni dayoo la na ci waaye nag loolu rek taxu gaa yi ñëw taaram bi rek jëmm ji. Mhm. doy na gis. wallaay ndeysaan. dégg tabeem ji rek loxoom bi. war naa mën a gis bu ay nit. ndeysaan ah. Mhm. Eh, eh, dënnam bu yaatu. Mhm. mën naa gis bu ay nit. waaye loolu lépp li gis bu gaa yi mooy. li mu wax ne. wasulu jamiil masikina bi habliya taxaqaqahu man lam yukadib bi rabbiya wa jow bi fayaafin fi lmaarifi lam turam wa qad qasra al aqtaabu an daraka shawiya loolu moo andi ñu tey képp ku jàpp ci man garantil naa la nga xegg ci yàlla waaw mu ne lii ma wax nag ku kurut seen moo ma ko wax mu ne ndax lan doog naa ay màndi yoo xam ne ci xam yàlla kenn seenuma ci mu ne nag xut buy sax lott nañ ci seen sama leef allahu akbar kooku bon liñ ko toppee mooy lii te ña ko topp ay xeet yu bëri la ni nga ko waxee Nigeria mm-hmm. Baye wax na ko ci ay baytiim mm-hmm. mu ne اختلفت ألسنهم والعقد متحد حقا لرب الحمد mu ne sama gaa yi nekk ci adduna bi yëpp jàpp ci man mu ne ah seen làkk ya wuute na de waaye pas-pas bi benn la aqida bi mooy benn la mooy ñëpp xam nañ yàlla bàyyi ko dëgg la mu ne nag maa ne mu ne naa ngi sant yàlla ci loolu nag ndax loolu dimbalal yàlla la dimbalal yàlla la bàyyi mbay ñes daana wax ne ku yàlla dimbale dana yàpp ko man bàyyi mu ne man ya moom yàllaa ko dimbali ba jagleel ko loolu léegi nag xeer yooyu nga xam ne ñoo tax gàmm gi nekk gàmm international mhm. bàyyi tudd na ca ñenn du ñëpp de mhm. waaye nee na ñii ci njëkk mhm. ci ñooñu nga xam ne jàpp nañ ci man ci adduna bi yëpp ci Nigeria Ghana Togo Benin Cameroun mu ne ñoo ñëpp awaluhum ki ci ñi ci njëkk nag mooy Hausa. Mm-hmm. waaw aw waaw Hausa yi da gisoo si seen mbaxana ne sax lañ sol. Ah, eh, ci seen Hausa yi papa laa bëgg ñu taxawoon ni ah, tuuti rek. sama baay ñu ngi awaluhum Hausa. Mm-hmm. wa ahlu Zarma. Mm-hmm. kada Dugumba. wal xayru fihim amma. wa jaani Yoroba kadaka Muushi. wa Wangara. wa jaani Manfushi. kadaka Kutkuli. wa Farfara Ataw. kadaka Gunja. wa min alfayd rawaw. wa qawmu Gurma. wa Basanga wa Fula gaadaw. ووالا أخذوا عني ولا قرن شجاء وكساسة ولبي برقودة قاتي فأزالوا نصبي باسا وقادرة فالقبائل سقاهم الخدم التجاري القائل المدفع الكبير يرمي عن بعيد يعني مقامه المكتم الفريد allahu akbar bàyyi bàyyi li taxawal ñaan rek <laughs> uh-huh. uh, bàyyi laa bàyyi Alioune di man dama bëgg xam-xam lii uh-huh. ba ma ganee àdduna ba tey maa ngi koy doog dégg te dafa neex na xaal bi mu koy waxee dama bëggoon rek uh, boo ma mayee ndigal ñu delluwaat ci soxna Aida ñu daal di uh, képp koo xamante ni rek ndax dafa am ñoo xamante ni dañuy dund waxtaan uh-huh. am ñoo xamante ni dañuy dund way te fi mu toll nii yonent bi bés yoo gën a dem bàyyi Alioune xeetu cofeel di la gën a xeeñ jëm ci moom ma bëgg soxna Aida nga daal di bégalaat adduna bi yëpp ndax ñëpp a ngi lay laaj fi mu tollee ci euh, Facebook bi soxna Aida soxna Aida ñu bëgg nga béggalaat suñu baay euh, Omar nag maa ngi lay seedeel ni ku la sopp la loolu xam naa ko bu baax a baax ci moom ku la sopp la ku ku la yëg la ku lay ñaanal la. Ali Ali ah c'est Baye Alioune ku la yëg la. ku la sopp la ku lay ñaanal aca bégalal gaa ñi ci euh, bindu Mame Baye Niass ñu daal di dellu si waat Muhammadul Mustafa awlaahu mawlaahu ku la la taaya wa adnaahu wa alaahu Muhammadul Mustafa awlaahu mawlaahu ku la la taaya wa adnaahu wa alaahu waaw shumadaahu faqtada nafarun bi adiyi wa bu aydal fari anaahu Muhammadul Mustafa الله مولاه كل الخطايا وادناه والله الله تعالى والله أرسله للخلق ترا فما في رسل شرواء محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وادناه وأعلاه قد استفى المصطفى من مصطفى وصفى المصطفى وصفه من أجل قرباه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وادناه والله wallaahu akramahu fi yawmi mawlidi wa waxta nashati wa layla masraahu muhammadul mustapha awlaahu mawlaahu kural xataaya waatina wa alaahu wallaahu arsalahu linaasi ajmain qadma risalati ma ala wa alaahu muhammadul mustapha awlaahu mawlaahu kural xataaya waatina wa alaahu abbat sariratu sajiyatu qad tamma suratu wa tamma maanaahu muhammadul mustafa awlaahu mawlaahu kural hataaya wa adnaahu waalaahu jamma alqawaariqu raqqa alqalaa'iqu wal xalqu qaaliqu lawlaahu maa shaa'u muhammadul mustafa awlaahu mawlaahu kural hataaya wa adnaahu waalaahu muhammadun sayyidul kawnayni غرتنا وكل ما قد بدا فمن عطاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل عطايا وأدناه هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل قادم ولا قناجاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل عطايا وأدناه أنت أجايبه أن القرائب فتيب شلوتي سرايا محمد المصطفى أولاه مولاه كرى العطايا وادناه وأعلاه وتلك رابطه وتلك منته وتلك إجرته وتي مطايا محمد المصطفى أولاه مولاه كرى العطايا وادناه يعلي بلا سبب يعطي بلا عجب يخفو بلا قدب فتيس جاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وادناه وتلك طيبته وتلك دومته وتلك تلاته وزام عياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وادناه وتلك مكته tilka taybatu wa tilawatu wa zaka jadwa Muhammadul Mustafa awlahu mawlahu kulal ataya wal mawlahu barhamu madi'u الإمام قادم فتيم دائع وتخطايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وأدناه وتي شجاعة وتي فشاعته وتي رسالته وتي فساعته وتي شنايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وأدناه وتي شفاعته وتي رسالته وتي فساحته وتي شنايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل خطايا وأدناه وأغلاه وتي شجاعته وتي بصالته وتي كرامته وتي وصاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل خطايا وأدناه وأغلاه وصل يا ربنا وسلمنا على هذا الحبيب وكمل ربي بشراه محمد المصطفى أولاه ربنا واغناه وصل يا ربنا وسلم على محمد وارزق العبيد لغياه ومن المصطفى أولاه مولاه كرر حتى يا وادناه واغناه وصل يا ربنا وسلمنا على ما عيد للذي قد بان علياه أحمد المصطفى أولاه مولاه كل عطايا وعدنا وغلاه وصل يا ربنا وسلمنا على محمد وارزقا برحام بغياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدنا وغلاه وصل يا ربنا وسلم على محمد وارزقنا برهام بغياء محمد المصطفى أولى ومولاء كل العطايا وادنا وأعلى محمد بار لك ونشيمة طبت أرومة ورق مبحاء محمد المصطفى أولى ومولاء شكر العطايا وأدنى وأولاه محمد الحمدة محمد الوزري أنا تبيلي وابني مسمى محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدنى وأولاه محمد أحمد ماع وعاشرنا محمد آخب أكرم بأسماء محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وأدناه وأعلاه محمد بشر وليس كالبشر السرف الحقيقي وربي تعسماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدناه وعلاه جل إله عليه فهو صفته مسلما ما جلب ذكراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدناه وسل يا ربنا وسلم على محمد المصطفى ما طاب معناه محمد المصطفى أولاه مولاه كل غطا يا ودنا وسل يا ربنا وسلم على معطي العطايا بيمنى ويسرى محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدنى وصل يا ربنا وسلم على محمد من برا قلبي وأصحاه محمد المصطفى أولى مولاه كل العطايا وأدنى وصل يا ربنا وسلم على محمد من شفى جسمي وأدناه محمد المصطفى أولى مولاه كل العطايا وأدنى وصل يا وسلما على محمد وبقلبي سار مشواه محمد المصطفى أولى مولاه كل العطايا الله وسلم ربنا وسلم على محمد وحدي بأمري برايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدنا وعلاه صل يا ربنا وسلم على محمد وسع بن شم مولاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدنا وعلاه إلا الله لا إله إلا الله la المشركين بحبلها تحقق من لما يكذب بربها وجوبي بياف في المعارف لم ترما فقد قصر الأقطاب عن درك شعبها بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله taa nabiya alamtu yaminana innani la yuhibbuni siwa adadin wala sufiya li bu'diya wa qad alima al aqwamu anni qadimuhu fa waslu habiballah yulfa bi wasliya wa ma qultu qawli shati'an mutabajja'ana وما مسني سكرا يقيب أعليا وإن قتوتي للأنام سعادتنا فلم يشق يوما منا رعاني وقتيا وما قلت هذا دون إذننا وإنني لأكتم سر الله yubaaxu li xayriya wa za kullu min xubbi saydi mursalina alayhi salatullah waltu li shaniya tanawartu atan taayartu innama jalalun rasulillah ayara fikriya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ay yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah soxna Ayda jërëjëf Euh, mooy baatu dëgg bi man damaa toog di seetaan télé wallaay fàtte naa ne sax maa ngi plateau de mooy baatu dëgg bi laa ilaha illallah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko yëkkatee da ngay gis sunu baay ndeysaan ni dënn bi di di riire baat bu mujj bi yow it daanu nga fi wallaay laa ilaha illallah <laughs> ay ca mu ngi ah, noonu jërëjëf na yàlla wéral baat bi ndeysaan yal na guddal fan wi ndeysaan waat nag xam naa li des ci waxtu wi sax bareetul mm-hmm. ñu wëlbatiku ci suñu góor gi nga xam ne wax dëgg waxtaan wi am na solo bu fi yemoon sax neex. dafa am nag laaj boo xam ne euh, dafa dugg ci biir thème bi ñu war a waxtaanee. Mhm. ñu ngi may xamal ni ma temps bi jeex na. Mhm. Euh, Cheikh al Islam ci dundam moo fi wuutu woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge fii bi mu fi jógee kan moo ko wuutu maanaam kan moo toog toogaayam boobu mu toogoon ci ba palaasu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw wax naa loolu wax naa ko sànq. Mhm. ba ba ne mhm. Mhm. bi toxuwul. mboot ma toxuwut. mboot maa fi. mooy faydatu tijaaniya bii ba keroog ñu yor bi. du fi jógee ko. du fi keneen du andi leneen nag. keneen. Ah. sharia ñëw na. di yonent Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam tariqa ñëw na uh-huh. bu Cheikhu Tidiane yi uh-huh. fayda ñëw na buy bàyyi ñes jërëjëf loolu dañ ko dugaloon rek ci biir ah, euh, thème ah, bi léegi nag li euh, des ci waxtaan wi ah, ñu barkeelu tuuti rek ci mbindum Cheikh al Islam loolu li mu bind ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu ni ma ko waxee ci ndorteelu waxtaan wi mhm. ponk boobu rek xajul ci mhm. ay waxtaan mhm. waxuma laa ci benn jotaay nga nga nga dikkal ñu rek ci ay ci tuuti rek ci mbindum cheikh al islam ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donte donte la sax euh, ñaari bayit la ba ñetti li ma ci wax rek mooy ci ganek adduna gi sallallahu alayhi wa sallam ñu barkeeloo ko mm-hmm. waaw mm-hmm. ganek adduna ak yeneen euh, yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam baal rek euh, waa Kër Madiabel mm-hmm. dañ fay woote léegi dëgg la ne ñu ngi àndandoo ak ñun ci waxtaan wi may ziare sama jarbaat Dame Ndiaye ak euh, waa kër euh, bay Mbaye Niass. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi àndandoo ak ñun ci waxtaan bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. waaw juddu yonent sallallahu alayhi wa sallam. Eh, yonent bi nga xam ne moom la ñu Abdullah Muhammad. Mhm. doomu Abdullah. Mhm. ak Aminatu. moom mi ngi juddu bésab altina. mi ngi juddoo Makka. yaroo fa geddaay dem Medina mhm. nekk fa ba ba génn àddina ñu ñu suul ko fa mhm. koy mooy moom Mouhammad ibnu Abdullah mhm. waaye Mouhammad Abdullah kooku moom xamut ndey xamut baay xamut bés bu muy juddu xamut barab bu muy juddoo Mouhamad ibn Abdullah boobu du dee. Mouhamad mhm. Abdullah boobu du dee. Mhm. Mm. déedéet xayyun laa yamuut. Mouhamad Abdallah. Abdullah. xayyun mhm. laa yamuut. Mm. mooy Mouhamad mooy yonent bi nga xam ne. moo wax ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadamu bayna al maa'i wa tiini nekk naa di yonent xam sama yonent fekk booba sax aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox mhm. mu ne fala aadama wala tiina wala maa wala arda wala samaa wala qamara wala nujuma wala lawxa wala qalama wala wala wala wala wala wala wala mhm. mm. ba may nekk yonent xam sama yonent booba sax aadama amut ban amut ndox amut bidiw amut jant amut suuf amut weer amut xamut amut jamono jooju yonent booba laa ne la xayyun mhm. laa yamuutu kooku mooy nabiyu mooy mooy mooy mooy yonent kooku itam buñ ne buñ ne dee fi mooy ki nga xam ne booy taaya moom ngay moom bi naan ko asalaamu aleyka maa ngi lay nuyu su fi jóge woon damiru xaayib ci arab dafa naa nekkul kaaf déedéet huwa lay waaw ah asalaamu aleyka maa ngi lay nuyu yow yonent moom ngay taay di ko jokkoon mu xaataba la mu xaat yaa ngi jàkkaarloo mu moon <laughs> waaw kon yonent moom mi ngi fi laa ilaa waaw loolu de su fekkoon ne nekku fi asalaamu <laughs> aleyhi maa ngi koy nuyu dafa nekk di deena <laughs> yonent bi ngay jokkal bi ci taaya bi du fi jóg du fi jóg te itam xam barab bu mu yées fépp la nekk ndax yow yaa ngi fii ci Dakar di ko di julli di ko jokkar bi naan ko salaamu aleykum maa lay nuyu mhm. ka nekk Amérique di ko jokkar bi naan maa ngi koy nuyu mhm. ka nekk Angleterre ka nekk France ka nekk ka nekk eh, Chine mhm. ka nekk Hong Kong di ko jokkar bi naan ko maa ngi lay nuyu kon yonentu boobu nga xam ne bés bu bu nit ki deewee bañ bañ wan ko gannaaw ñu suul ko ba ko gannaaw malaa malaaka yi ñëw dekkal ko lan lan lañ koy laaj loo xam ci waa ji kon yonentu booba moom laa la ne moom kooku xamul ndey xamul bàyyi ndax mooy ngi jógee ci kanziyatul xaq hmm. bàyyi ne na wa nachatuhu kanziyatul xaq waxdahu hmm. lilaaka ataana qasiman wa muqassama <laughs> yonent salaa sallam xadi yàlla wax na ci xadisul qudsi ne kuntu kanzan lam u'raf hmm. nekkoon naa di ndàmb loo xam ne kenn xamul ma waaye ba ma bëggee ñu xam ma ci laa bind mbindeef boo xam ne ci lañ may xamee kooku mooy mooy xaqiqatul muhammadiya fi jógee ko yonent boobu nag nga xam ne moo juddoo Makka Madina yaroo fa génne fi kooka moom moom la màggal juddoom gii de. sallallahu mm. alayhi wa sallam. desam altine la juddu yonent léppam altine la. Mm-hmm. ndax altina mooy ñaar. Mm-hmm. mooy yowmul isnayni. Mm-hmm. ahad mooy benn. mooy péeb yàlla bi. isnayni mooy péeb yonent mooy ñaar. ndax mooy tajallil ëwwal moo njëkk a jóge ci yonent yàlla ci ci péeb yàlla bi. kooku moo tax mu juddi altine léppam altine la ci la juddu. sallallahu alayhi wa sallam ci la faatu. ci la gàddaay ci la ci lañ ko yónni bisab mhm. altine ci lañ ko rañaanee mhm. lépp lu am rek ci altine la ko amee mhm. sallallahu alayhi wa sallam euh, moo tax ñii bég ci juddug yonent yàlla Muhammad te waxoon naa ca tàmbali ne kuy bég ne bég ci loolu loolu mooy gàmmo nag du leneen jàng xisa yonent wax njàmbaaram xam-xam ba taar ba jikko ya ñëpp jëriñoo ko loolu mooy gàmmu bàyyi daana wax ne man de xanaa naag fóode yi nga xam ne dañ ne gàmmu maanaam laylatul qadar yi ñuy foor foor guddi gàmmu moo ko gën a foor bàyyi na ne fóode yooyu la xandal mais waa papa foofu dama gis ci euh, ñu bari ñoo xamante ni tey euh, dañuy génn ci télé yi di wax ni wala ci réseau sociaux bi di wax ni lu sosu ginnaaw yonent bi bidaa la te gi naw yonent bi la sosu ñu ngi ciy def ay waxtaan yu bare bare bare bare bare bare lan mooy sa atte ci waaw gàmm sosuur gannaaw yonent mhm. yàlla moo njëkk gàmmal yonent mm-hmm. waaw waxaat ko te yonent ya ko jiitu mhm. yàlla moo ne mhm. yow yonent danaa la nett li histoire yala yonent yala jiitu ndax lan des ngëb yàlla dëgër waaw yàlla buy nettalee histoire yàlla Isa buy nettalee ko yonent Muhammad Moussa Ibrahim noox yonent yooyu nga xam ne yonent tax ñu bind leen ndegam yàllaay nettalil yonent histoire yonent yooyu tax ngëm yàlla gën a dëgër mhm. waaye ñun suñu suñu nettalee bon histoire yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam mën naa dëgëral suñu ngëm yàlla kon kay wax dëgg yàlla loolu yàlla njëkk a gàmm ci ci yonent ba njëkk a gàmmul yonent te itam doy na gàmm itam yàlla ku toll ni yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mhm. ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa mhm. sallimu taslima man yàlla ak samay malaaka ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad eh yéen gaa yëpp ngelawaay julli leen ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam loolu da gàmmam mhm. gàmmu la de kon gàmmu gàmmu la wuy leen yàlla moo ko njëkk a def ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax gàmmu ku naan biddaa la dafa sosu gannaaw yonent sosu wut gannaaw yonent mm-hmm. Mm-hmm. yonent sallallahu alayhi wa sallam altina jot na mu defar ay ñam mm-hmm. ñu ne ko lii nag mu ne bés bi ci laa judd macha allah loolu ñun képp koy weddi yow yaa ngi feetu sa anniversaire yow nga xam ne doxoo dara ngay feetu sa anniversaire di an feetu sa anniversaire doom mhm. waaw nga ne nag yonent yàlla man nga xam ne ko xam moo tax ñu am te Cheikhul Khadim wax itam ne euh, màggal bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko teg ci sunna waaw yaquduna bi sunnati hmm. waaw waaw loolu de taadimuhu bi sunnati uh-huh. yaquduna yaquduna bi jannati hmm. mhm. màggal ko teg ko ci sunna hmm. ah daf la daf ñuy omat jëme ñu aljanna waaw mais xam nga nag euh, àdduna moo bindoo noonu mhm. ñi Eh, eh, dañuy ànd ak leer gi. Mhm. ñii dañu réer. Mhm. ñi réer nag yaakaar naa ne. Mhm. Eh, jaruñu sax di tontu. ndax képp koo xam ne ni ab jullit nga. rawatina ngay ab sénégalais mën a taxaw. naan gàmmu biddaa la. ñun loolu jarul sax ñu ci prêter attention. ndax sunu mag ñu baax ñi dañoo fekk ni may bi may ubbi li ma wax dañoo fekk sunu mag ñu baax ñi di gàmm nampatal ñu ci gàmmu ñooy ñëw di gàmmu mhm. te bañ ko dalee di def ba léegi yokkute lañ ci gis waaye wax gisuñ ci wàññent Baye Niass daanañu wax ne mhm. mu ne Abu Lahab mhm. moom yonent ñoo bokk Baye yonent ñoo bokk ndey ak Baye waaw Abu Lahab altine ju jot dañ koy génne oyo sawara oyo ko bugalam lan moo tax ndax bés bi ndax bés ba ba yonentu juddoo dañ ko fekk ca Kaaba ga moom Abu Lahab ne ko Aminatu jur na doom bu góor mu kontaan bég ba amoon ab jaamam goreel ko xata annahu fi lyowmi l usnayni daiman yuxafifu anhu bi sururin ba ahmada mhm. béggam béggoon ci juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom yéefar la mhm. moo tax jot dañ koy sawara ah, oh. xayo falal ko mbugalam ah. waaw kon nag ñun ñi nga xam ne ñun <laughs> yonent lañ gëm ah. wax nga dëgg yàlla di ci bég di ci kontaan wax dëgg yàlla war nañ ca am lu raw la ca noonu yàlla ba رأت الحور بغتة بتوالي جاءها ديكل نا يونت يالا محمد جاءها ديكل نا سيدة آمنة آمنة جاءها ديكل نكو الطلق مدوى كرا بما يمتو موم آمنة فك منشي دارو منشي كرغ موم كسي mat woo xam ne bokkut ak ni jigéen ñi matoo mm-hmm. mat woo xam ne amul benn coono yëgut dara diisul mm-hmm. mu ne fa ataaha al xóoru jigéeni xóorul ayni yi ñëw baxtatan ci mbetteel bi tawaali di toftaloo ngir ndokkeel aminatu ci doom ji nga xam ne moom lay wasin mm. wa atat an ummu isa mu ne wa atadha dikkal na yonent dikkal na sayyidatuna Amina dikkal na ko di ko ndokkeel di ko révélé kan asiyatu mhm. bint Muzaahim mhm. muy soxna si Firawna mhm. dikkal na mari na eh, eh, Aminatu sayyidatuna Mariama dikkal na Aminatu dégg de ci juddu jur gum jur yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa eh, ñoom ñëpp dikkal nañ ko di ko ndokkeel ndax ki juddu mooy kan sallallahu alayhi wa sallam nga mooy wurusu jamono jëpp na wa adal amlaku shumata dalla nuru kullu nujumi lil mifdal mu ne wa ata wa ata dal amlaku sax ñëw nañ su mata dalla di yooru di ndokkeel yonent di ndokkeel aminatu ngir kim jur muy kan gën ji midéef sallallahu alayhi wa waaye sax bidiw yi dañoo yooru bidiw yi dañoo singéem dégg nga de ndax lan ndax juddu yonent mi nga xam ne mooy mifdaal mooy ki gën képp ku yàlla ma sa bind sallallahu alayhi wa sallam mhm. wadaat fi daar ibni aw bi ratmi wal shaqi qawlu jul rijaale saytuna amina mi ngi mi ngi wasine mi ngi juree yonent sallallahu alayhi wasallam ci daaru yusufa ibnu yusufa xam nañu ne ci ratmu am nañu ne ci shiba ibnu abi talib waaye lu ci mënti am daal yonent moom màkka la juddoo loolu amul benn uute donte la barab yi uute na yonent boo nga xam ne mooy sangi mi dee fi te na loolu la ñu ëpp ci góori yàlla yi wax sallallahu alayhi wa sallam nuuru shamsi tabassaqat ina shamsa mustafa shakhsha zalama dalali marhaban bi rabbi'i fi'i atana mustafa alqalqi wa huwa qad mursale bàyyi mu ne yonent boobu nooru shamsin mooy leer ak jant goo xam ne tabazzaqat feeñ na mu ne inna shamsal Mustafa sax li gën a gàtt sax mooy jantab yonent yàlla Muhammad moom du luy suux jant bii dana feeñ di suux waaye jantab yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam day feeñ daa iman du suux mu ne jant boobu nag mooy jant bi nga xam ne moo fi jël jëlee lëndëm ak réer lëndëm ak kéefër lëndëm ak bokkaale leer ak yonent sallallahu alayhi wasallam jant boobu moo ko fi jëlee sallallahu alayhi wa sallam besam altina yaa asal murtada bi tarfin kainin bi inayati rabbina almutaali baay mu ne marhaban bi rabii maa ngi ndokkeel weer wi nga xam ne mooy weeru gàmmu muy rabiul awal ndax lan fii ataana ci la ñuy dikkalee Mustafa al xalqi ki yàlla tànn ci mbindeef yëpp tànn ko ci yonent yëpp tànn ko ci jamono yëpp muy kan wa huwa xatmu risaali mooy ki nga xam ne moom mottali yonent yi gannaawam beneen yonent dootu amati doonte oote la am na yeneen kuréel yuy oote ne gannaaw yonent xam na yonent yuy ñëwaat loolu alquran weddi na ko maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatima nabiyina kon yonent dootu ñëwati gannaawam donte am na fekk bu ñuy wax al ahmadiya ca indo ñoom nee nañ yonent yi jeexuñ ba léegi ñu ngi ñëw nañ leen xaar rek wa huwa maqtu surratin wa huwa maqtu bàyyi taalif ci téere pour weddi eh. bàyyi tontu leen bàyyi tontu leen ci bàyyi tontu leen ci seen wax jooju muy waa Mirza Ghulam Ahmad yi ci ne yonent gën ci yonent yi yonent beneen danañ yeneen danañ ñëw kurut yonent yàlla Muhammad bàyyi tontu leen taalif téere bu ñuy wax ba ñuy wax nujuumul huda fi kawni nabiyina afdala man daa ila allahi wa hada bàyyi ku laal islam laal diine ji du xeex du werante du xuloo lan lay def day jël xalimaam ankaram digam tontu la ci xam-xam ne la haatu burhanakum mu jeex kon nag yonent boobu nga xam ne moom la bàyyi di tagg fii mu ne jaa dikk na al murtada bëri na ay tur de mhm. kasratul asmaa tadullu ala sharaf al musamma tur yu bëri day wane ne kii dafa màgg moo tax yonent tur yi bëri moo tax yàlla tur yi bëri moo tax képp ku màgg itam tur yi bëri bokk na ci Baye Niass mi ñaata tur la la am kenn xamul nañ tur sëñ Touba ñaata tur lañ am alaaji Maalik képp ku màgg rek dana am ay tur yu bëri yoo xam ne boo ko fàggu boppam gannaawam tur yooyu nag day wane ne kii ku màgg la moo tax ñu ne lépp lu màgg rek tur ya moo koy wane moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam màggaay mi tur ya wane na ko Muhammad Murtada Muntaqa Mujtaba Mustafa ba fukki na am fukki na xatta sax xoolal jaan mhm. jaan rek mm. ñaati tur jaan mhm. dafa garaaw moo tax ñu naan ndox suuf mhm. buum suuf tudd malaa mbaay lu ne tuddee nañ ko ndax dafa màgg dafa garaaw mm. kon yonent sallallahu alayhi moo garaw moo tax tur yi màgg te bëri mu ne Muhammadul Murtada boobu bi judd mi ngi judd bi parafin kaxiil mm. dafa judd ñu tusngal ko ci biiru yaayam mm-hmm. macha allah mu rafet taaru jekk mm, waaye nag loolu bi inaayaati ci ndimbalal ak taxawaayu rabbina al mutaali yàlla mi nga xam ne moo ko moo ko dimbale ba mu juddoo noo xam ne kenn mësu ko juddoo sallallahu alayhi wa sallam wa huwa maqtuu wa huwa maqtuu surratin wa huwa maqtuu مندعين أكرم بزين رجال باي من أجدنا وهو من فيك صلى الله عليه وسلم مقطوع سرة دنيا دق أبو التم لوت لوت نقلي قبل كم يجمخ da ngay judd ba pare kay ñu dagg sab jumbax waaye bala ngay judd fekk dagg jumbax loolu yonent sallallahu alayhi moo ko am ñu nandal ko ci biiru yaayam nandal xam ne nga xam ne mu ko déggee dañuy wax ne dañuy yaakaar ne jox ko ndox mu naan mm-hmm. nandal mooy wax jongal ci olof. Mm-hmm. dugal loolu ay kii turi kii la. Mm-hmm. la la dugg néegu góor kinaaya la. warma warma waaye loolu lay firi. sallallahu alayhi wa sallam la mel maxtuunun dañ ko nandal dahiinun dafa judd itam ñu diw ko. lakkal raxas ko setal ko macha allah akrim bi seen ah a tedd ki nga xam ne mooy taari góor yi sallallahu alayhi wa sallam na الأملاك نحو جناني وبحور وبدر بلا صلى الله عليه وسلم li tax juddu li tax judduwut guddi judduwut bëccëg xanaa tànn fajar juddu ca dafa bañ moom ya moom yàlla dafa bañ guddi damu ci bëccëg ne maa la gën ndax yonent ci man la juddu Mm-hmm. li tax judduwut bëccëg itam dafa bañ bëccëg damu ci kaw guddi ne ko guddi maa la gën mm-hmm. moo tax mu toog ba diggante guddi ak bëccëg mu juddu ci sallallahu alayhi wa sallam muy fajar nga xam ni fajar guddi gi mu ngi waaj a jeex bëccëg gi mi ngi waaj a dugg kenn ku ne barkeelu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax heure boobu mu juddu loo ci feebar boo feebar lu métti metti métti métti bu heure boobu danga nga nelaw as nelaw tuuti mu oyof mm-hmm. ndax sallallahu alayhi wa sallam ci la juddu boobu noonu loola nga ne la lu rëy na guddi ak bëccëg barkeeloo ci juddu yéen ci sallallahu alayhi wa sallam kere ba mu juddoo itam naka noonu bàyyi mu ne xamalatul amlaaku naxwa bihaarin malaaka yi yóbbu nañ ko ci géej ndax géej gi barkeeloo ci yéen ci sallallahu alayhi wa sallam naka noonu itam xamalatul amlaaku naxwa jinaanin eh, malaaka yi yóbbu nañ ko aljanna ndax aljanna itam barkeelu ci juddu yéen ci wa baadaro fil xaal ñu gaaw nag andiwaat ko ci yaayam aminatu bintu Wahab barke lu xam solo la moo tax ñuy barkeelu ci nit ak yàlla ndax bàyyi daana wax ne barke du jëmm ju laal waaye nag lu mu dugg ñu xam ko ku baax dañuy barkeelu ci moom moo tu moo andi tey ñu nuyu di fóon di barkeelu barkeelu googu yonent sallallahu alayhi wasallam moom njëkk def ci moom te yonentu jógee fa ba léegi borom xam-xam ñoo ko ñoo ko uutu ndax al ulama warasatul anbiya loo war a defal yonent boo gisee alaaji Malik war ko ko defal sëñ Touba Baye Niass Limaamu Laay kenn ku ne lépp loo war a defal yonent rek defal ko ko ndax ñoom xula ñooy xulafa u rasulillah ta yonent sallallahu alayhi wa sallam ne rahimallahu xulafa yi yal na yàlla yaram sama xalifa yi qiila man hum ya rasulallah qala alladina yarawuna ahadisi wa yuallimunaha annas yàlla yàlla yaram sama xalifa yi ñu ne ko mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañ fay taxaw di jàng alquran di jàng hadis di ko jàngale ñooñu ñoo ma ootu loolu mooy xalifatu rasulullah waaye du sama baay moo fi ne won toog jógee na fi rek ma ma ma ma ma ootu la loolu du xalifa ci islam bismillah euh, Soxna Aida euh, yaakaar naa ne ñun euh, gàmmu nañu ba noppi mu nekkoon seen émission waajtaayu gàmmu mhm. incha allah nii leenu ko fas yéene jàppoo Euh, altine ci bés bi nga xamee ne ci la ñuy màggal ngeen gi def leeru leer yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa am nag euh, laaj boo xam ne nii euh, bokk yi ñu doon seetaan dañ la ko laaj soxna Aida ñu ne noo fas yéene gàmmoo ren ñuy béggee bu baax Mamadou Dialige Diallo ci hôpital Roi Baudouin moom it woo nañu nee na mu ngi suivre jotaay bi soxna Aida ren noo fas yéene gàmmoo ak ban appel ngay def ci gàmmu gi alhamdulilahi rabbil alamina eh, gannaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ndokkeel Mawlana Cheikh comme li wax ne weeru gàmmu gi teru na moom ci boppam dafay ndokkeel boppam di wax ne ani an li Ibrahima laaha ilaaluhu ilaalun badali nazirina jama هلال ربيع الفيع جاء محمد فتم لنا البشرى وأمن وعده kon ñu ngi koy ndokkeel mhm. ci bésu soppeem bi nga xam ne ni ñu ngi koy dëgmal di nuyu ñépp mbokki jullit yi yëpp ñi ngi leen di nuyu di ndokkeel ñëpp ci weer bi nga xam ne mooy weeri gàmmu gi ñuy séentu bés bi nga xam ne ci la suñu soppe bi suñu sang bi yoon ci yàlla Muhammad gane àdduna ñu ngi profito di ñaanal suñu xalit di ko nuyu muy papa Mahi Ibrahim di ñaanal mbooleem waa dina bàyyi di ñaanal Cheikh Tidiane euh, Alioune Cissé mi nga xam ne mooy suñu imam di mhm. ñaanal ay rakkam ak mbooleem njabooti Mawlana Cheikh Ibrahima Niass suñu papa Serigne di ñu ngi koy ñaanal di ko nuyu di nuyu njaboot gi yépp doomi Mawlana Cheikh Ibrahima yi ak sët yi di ñaanal di nuyu aussi ki nga xam ne tey jii mooy sama sëriñ te tey bu ma demee ba nit ñi ràññee ma ba nga xam ne ñu ngi may oo ci yenn jataay yi ndax cofeel gu ñuy am ci man euh, mooy Baye Cheikh Mamour Insa mi nga xam ne yéen a ko doon tudd. le mooy suñu buntu tey ci moom. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass. ñu ngi koy nuyu waaye ñu ngi koy ñaanal gudd fan lool lool lool lool di nuyu tamit di ñaanal suñ borom kër di ko gërëm di ko sant ndax tey daf ñoo dimbale lool jàppale ñu ci li nga xam ne ñu ngi koy def muy Cheikh Abdoulaye Ndaw Cheikh Abdoulaye Ndaw nga xam ne muqaddam la moom tamit ci pays bi ci paydub Mawlana Cheikh Ibrahim di muqaddami Cheikh Abdoulaye Wilane Cheikh Abdou Barhama mi nga xam ne ku ko xam xam mbëggeelam xam cofeelam ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass euh, kooku tey jii mooy sama borom kër moom moom wax dëgg yàlla moom it ku baax la ku ñu dimbale ci lu ñuy def la ñu ngi nuyu daayira bi yépp nag ñu ngi nuyu mutasimina bi hablillah jamian ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa naylul mafaz di nuyu xale yi yépp waaye di wax rek ne ñu ngi waajal dem Medina Baye euh, ni ñu koy waajalee mooy am na guddi goo xam ne buñ ne suba la gàmmu ga xale yi fans club bi nga xam ne ñoo sopp Aïda mu Baye ñoo ko organisé di ko def foofu ci buntu kër ga at mu jot yaakaar naa ren la septième édition bi ñëw nga guddi la goo xam ne njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim ñoo koy taxawal maa alaaji Muntaxa euh, dina fa tax moo koy teewee ak magam Cheikh Ahmed Boucar Ñeng doomi maire Roqiyatu mu bintu Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Ousmane Niass doomi alaaji Mat bu ñas ak yeneen njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim yoo xam ne ñu ko ñu ngi fuuklu tamit ñëw suñu sëriñ euh, Cheikh Abdourahman ibnu Cheikh Ibrahim Niass doomi Mawlana Cheikh Ibrahim mu ngi koy nuyu waaye ñu ngi fuuklu ñëwam foofu ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk mel na yëpp uh-huh. ñu ngi oo ñëpp nag wax dëgg yàlla di gërëm di nuyu suñu xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim fii ci dakaar muy Cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne tey bu ma demee ba ci xabrug yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca Màkka ca Médine fële moom moo ma moo ma fa yóbbu wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko wax Baaba Lamin mu dund lool te am wér moom ak njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim gi yëpp ñu ngi gërëm ñëpp waaye ñu ngi oo ñëpp ci bés boobu nga xam ne mooy laylatul zikr bi nga xam ne mooy am ci buntu euh, kër ga buñ nee suba la gàmm gi ñun noonu la ñuy teeroo gàmm gi wax dëgg yàlla dañuy fanaanee tudd yàlla foofu bëbër set njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim yi ñoo koy waxtaan te kilifa bu ne dina fa teew maa ngi gërëm sama soppe yi samay xarit maa ngi gërëm Cheikh Modou Khoule bu baax a baax a baax euh, suñu suñu càmmiñ la suñu nijaay la suñu suñu lépp la moom tamit di gërëm mboolem jullit daal ñu ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm sama mag Tamsir Soxna Tamsir Soxna maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ku ma yàgg a jàppale ku ma yàgg dimbale wax dëgg maa ngi lay nuyu di la feddali di la wax ne la ku la sopp lañ émission yi ngay def duñ ci tardé dara dañ koy seetaan booy commencé dañuy seetaan ba ba ngay jeexal Cheikh Mohamed moom it émission bi yi muy def si bëccëg bi suba gi yëpp dañ koy seetaan duñ tardé daraam waaye dañuy wax ne dañuy jeexalee ci suñ papa ji nga xam ne tey moom lañ bokkal jataay bi di ko def te tey mooy deuxième fois muy ñëw fii ñuy ñuy ñuy ñëw ñun ñu koy o di ñu o wax dëgg yàlla macha allah mu nekk loo xam ne fierté la ci ñun ndax borom xam-xam la wax dëgg yàlla dëgg dëgg dëgg ñun lottu nañ ci toogook moom ci place bii nga xam ne euh, fii lañ toog. waaye nag euh, euh, sante ko yàlla la ñuy def rek sante ko yàlla lañuy def di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yokk xam-xamam bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yéen ñëpp. Mhm. Mhm. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu tam. ci invitation bi ngeen ñu invité muy invité ñu ci yàlla ak yonent besam bi mhm. ku oo ci yàlla oo la ci yonent mënoo koo fay mhm. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant mhm. di leen ndokkeel ci weer yi nga xam ne mooy weeru gàmmu di ñaan yàlla yàlla dimbale ñu ñu gàmmu ji ci jàmm ñëw ci jàmm amiin yaa rabbal am benn ndok amiin nuyu borom kër gi muy alaaji bugaan ak képp ku ko jàppale di nuyu Eh, suñu. Abdoulaye Lam toog nga xam ne macha allah. Mhm. ku ñu yàgg a suivre la. Lam. Eh, mhm. di suñu mag. Mhm. muy Abdoulaye. Lam. di la nuyu. Mouhamed di nuyu Mouhamed Mbaye. nga xam ne yàgg naa déroulé lii. ci anam bu macha allah di nuyu itam. Eh, Adja Aïda mi nga xam ne ba ñuy xamante yàgg na. ndeysaan damay nekk géej waaye mu ñëw dem na di ma sikkaral. bu maa ngi koy nuyu di ko gërëm nii la ma sa ma sa mel. maa ngi nuyu itam ñii ma àndal. muy samay doom euh, ñi macha allah euh, ñi ngi ni toog maa ngi nuyu di leen gërëm waaye balaa ñuy nuyu mhm. ñu ñëpp ñi ngi jiital nuyoo suñu xalifa bi muy cheikh mouhamadul Mahi Ibrahima Niass yàlla guddal fanam mi nga xam ne moo uutu mhm. Mawlana Cheikh al Alhaji Ibrahima Niass mat place bi sëkk ci xam-xam mat ko ci lépp koo xam ne dara du yitteem lu may jàngale ak jàng ku xam ci nga ko xam yaakaar naa te bàyyi ci loolu la nekkoon mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér mm-hmm. ñu ngi nuyu itam al xalifa euh, al imam al akbar Cheikh Tidiane Sisi mm-hmm. di ndokkeel ci weer wi di ko ñaanal yàlla imaamatu gi yàlla na ci yàgg yàlla ñu yàgg jiite wakiilu daat ki nga xam ne mooy suñu buntu ci baay mhm. muy Mouhamadul Amin mhm. Ibrahima Niass mi nga xam ne lépp luñ nekk ci ñun moom la mhm. lañ nekkee ndaw lañ nekk ak moom di jàng ca Madina mu ñuy teete di ñu encouragé ba ba bañ egg fii nii ñu ngi koy ñaar yàlla mu wér lii nga xam ne mooy responsabilité gàmm gi nga xam ne dañ ko koo dénk yàlla na ko ko yàlla jàppale amiin yaa yàlla na ko ci yàlla dimbale amiin yaa rabbal luy lu lu raw njort feeñ ci yàlla mën na ko ci barke Baye barke Cheikh Tidiane waaye nag damaa gërëm ni ma ko waxee ci njëlbéen ga mhm. ki nga xam ne mooy taawam di Baye Lamine mhm. ku la defal lu baax ñaanal ko sant ko dëgg la ndax gannaaw yàlla sama dem ziare Cheikh Tidiane moom la barke dëgg la kon damaa maa ngi koy nuyu di ko gërëm dëgg la mboolem doomi Baye yi ak muqaddam yi ñëpp mhm. maa ngi leen di nuyu di leen ziara eh, di leen ndokkeel ci jotaay bi di jéglu ndax wax dafa jafe. dëgg la lépp lu ci rafet. ci Baba Lamine la. Mhm. lépp rafet na waaye lépp loo xam ne tarxiis la wala kii ci man la. lépp rafet na fay waaye maa ngi gërëm di sant. Mhm. Euh, su may soxna. Mhm. ndax ndimbalal góor mooy ay soxnaam. dëgg la. bala bu ne diw samp na kër. du tabax ya de. boo fa kër kër yi kër yi rafet waaye soxna ya moo tax ñu na samp dëkk kon ñu ngi ñu gërëm suñuy soxna Oumy Diaw Oumy Diaw euh, ak euh, Ndumbe Diop Jatu <laughs> konte ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla waaye di leen sant li am <laughs> yàlla ko yàlla maa ngi gërëm di sant eh. sama waa quartier ci njiital alaaj Bay da Arona nga xam ne mooy délégué de quartier ba mm-hmm. Euh, muy euh, Kër Massar euh, Daaru Salaam. Uh-huh. di ko ñaanal yàlla du ma ko fàtte ndax macha allah bu ma demee ba nekk imam foofu ñu tànn ma fa moom moom ma xam présenté ma mbooloo mi. Uh-huh. mbooloo mi doyloo ko. jërëjëf doyloo ma maa ngi wax ne dëkk xoolal. dafa fu ma juddoo. Uh-huh. ñu ko dëkk ba ñuy wax Banane. waaw. nekkoon arrondissement Colobane département Gossas. waaw juddoo fa tàmbalee jàng. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp mm-hmm. muy banaan di njoobeen mm-hmm. di ngaraaf di saajo dëkk yooyu yëpp di kambeel mm-hmm. yooyu yëpp nga xam ne mooy sama cosaan du ma leen fàtte géej waay ji nga xam ne falaa jógee ñëw Kër Masar du ma leen fàtte dëgg la ñama fa dalal du leen fàtte nag mooy kan Adja Maguette Seck ko tudd <laughs> uh-huh. Ibrahima Sow muy Ibu Sow uh-huh. nga xam ne këram laay endu su ma jiitee jumaa ja pare këram laay endu uh-huh. kooku itam ko uh, jërëjëf uh, maa ngi gërëm ñëpp di sant uh, ñëpp ñu ngi may dog waaye pare wu ma leen suñu photographe ku ma naa laa tudd di nga ñëw dañ maa dog moom suñu photographe di Diop le waaw nee na ñu santal ko bu baax Cheikh euh, Baye Mamour Issa. moom moom sax suba war ñoo koy sant. macha allah ndax ku ci nekk seq nga ak euh, moom teranga mhm. euh, te daf koy def buggul sax ku koy wax. Mhm. waaye sunu borom rek ak li nu bokk muy l'islam bi moo tax mu koy def. Mhm. kon yal yàlla yokk fanam. yal na yàlla yokk wéram yal yàlla yokk wërsëgam. yal yàlla yokk xam-xamam. ci turu liggéeykat yi fi nekk yëpp ndax ku ci nekk teranga rek la seq ak moom. Mohamed ci lu gàtt rek. man xam naa ñaar laay nuyu rek ndax tey man ak ñoom ñoo yendoo napp nañu ma napp bu te muy euh, Duudu euh, ah. nekk fii ci Parcelles Fadia euh, di garage sëñ Mansu borom daara ji ak sama électricien bi nekk Télé di yoro daanale sama nuyoo ci boutique pays bi nga xamante ni ñu ngi fii ci Parcelles unité 26 mbax na yu rafet ñoom ñoom ñoo ma koy solal 010 04 ci école bi rek en face waaw mbaxane bu gis ma sol rek wala dàll yu rafet yi nga xamante ni ay dàll yu gis nga euh, yu noppale la ñoom ñoo ma koy jox képp ku ci bëgg rek bu leen wooyee ci dére 010 04 21 incha allahu taala foofu Mouhamed foofu suñu kër la. waaw foofu suñu kër la ndax euh, jaboot ga fa nekk suñu. jaboot daal di ni mu <laughs> ak Kër Madiabel daanaka benn la. macha allah soxna Aida yi tamit al al Karim ci yooyu la yëngu papa ci mbaxane yi ay ay kurus yu cher ak yooyu tabaarakallah moom it. ndaw al Karim. al Karim. <laughs> Cheikh Ndiogou Ba. Uh-huh. Sacré Cœur. ndeysaan bëgg bàyyi ñu ngi nuyu ñëpp daal. ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp uh-huh. euh, nii nag lañ ko fa yéene jàppoo incha allah ba altine di bésub euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam uh-huh. delluwaat rek euh, di ñaanal góor gi Aliou uh-huh. yàlla guddal sa fan yal yàlla wéral say cër yal yàlla yokk sa xam-xam di gërëm mboolem ñu ñu seqaloon plateau bi sama doom soxna ayda ak sama doomu bopp Mohamed ak ñi nga xam ne nii ñoo doon aw soxna si di gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp ba ëllëg incha allah ci beneen émission spéciale waajal gàmmu ci Sen TV la première chaîne de télévision urbaine di Sénégal di gërëm ñi nga xamee ñu ñoom la ñuy wax les hommes de l'ombre muy ñi nga xamee ni bu doonu loon ñoom kenn du ñu gis kenn du dégg li ñuy wax mooy caméraman yi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci kër gi ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla barkeel seen liggéey soxna ayda kon nga yëkkati jotaay bi hmm. مع السلام على الحبيب سيد الكيان مع السلام على الحبيب سيد الكيان حمدا لربي على اللقاء أو فراز من ذي الأواني على الحبيب سيد الكيان نعمدا لربي على اللقاء عفرازي من ذي الاواني على الحبيب سيد الكي باي بدر البدور بحر البحور فيد البيود والقدم ساني مع سلامي على الحبيب سيد الكيون شمس سموسي رأس رؤوسي تاج العروس سبع المصاني مع سلامي على الحبيب سيد الكيون باي شمس سموسي رأس رؤوسي تاج العروس سبع المصاني ma salami ala habibi bay uprita fardan du'i du'abdan rahman wala samtaju tijani ma salami ala habibi bay qawsul ibadi naful biladi yaqudul aqi ruhul maani إلهي خليل الله حبيب الله مكتوم ثاني مع سلامي على الحبيب سيد الكون درم القروم فحم الفحوم قدم القرآن نافي سناني مع سلام على الحبيب سيد الكيوم برحم عاسي برحم صعم فهو عازبي وقد كفاني مع سلام على الحبيب سيد الكياني